How may I help you? My name is Aliu. I'm a holiday maker in the Gambia and heard about your holiday cash service and want to know how it works. Our holiday cash allows you to withdraw money in Dalasi using your credit or debit card through our POS system with no additional charges. This can be done both online through the phone as we are speaking or when you visit our head office at 55 Karaba Avenue. I am presently in Wooly Sutukonding and want to send $10,000 to myself and I want to do it right away. My card number is Aliu, your reference number is APS 123456, but it's after 4 p.m. already and the banks will close soon. But you can receive your money today with our APS home cash delivery service. Where can I receive it? Our agent in Wuli Sutukondi will contact you to arrange delivery of your cash to your home. Is this where Alu Jala lives? Yes, that's myself. My name is Alfuseni Jawla from APS Money Transfer Limited and I come to deliver a transfer to Mr. Alu Jalo. Alu, can you please confirm your APS reference number for your transaction? Yes, this is fine Alu and could I also have proof of ID please? Please confirm the amount is correct Alu and send the receipt for me. Thank you, APS. You are simply the best. It's one five, you know what I mean? And, and, and, at Gambia Talent um, Promotion TV and all that. You get me? So len mu ngeen gis lu xew si dëkk A ak lu waral warul si dëkk bi TV bii la fii la fii fans yi ak and am the jaama yi ak xeetay sax welcome to Gambia Talent TV show you get me seen xool xalaat yu bon yi nañ ko sànni fële si mbalit gi ne li xale ndaw yi toog di ko foyee fële Cosepepa TV bu nekk si tundi Gambi gii Gambian Talent TV mooy seeni baay man one pack maa ko wax bu ko dinaay nga def leneen comme nga ñu ñooy defee yaa ngi understand ñun ñoo fi ñëw boral di régler lu fi manqué di mutal lu fi manqué di def lu fi kenn deful mu ngi nii Ibaribi mari jamneto Gambia Talent TV gak na fomu koma Gambia Talent TV nkaka na fomu koma Madenja lolu kumata tumamina Nene jaliko kaka na fomu koma Gambia Talent TV Yo, tell them ma jalisuso sta Alasta, alafanso The Queen of Monday, aku Gambian Talent TV, akana fomu koma al kaji de lungolo Wow, wow, wow. Boom. asalaamaaleykum alaikum yi ñuy déglu dañu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna ngopp wala wherever you are listening to or watching us from you are here following your favorite show on the Gambian Talents TV Fast, Fast brought to you every Monday by Pa Usman Diouf xam ngeen ni may def rek lawoon fa woon ma jàkkaarloog yéen nag di leen indil yu baax démba biñ leen indilee lu tax Gambia du dem show waxoon naa leen ne tey ma indil leen gan indil leen daanaan bu mag koo xam ne yes am all eyes on him ñi toog ñi taxaw ak ñi jonkoon yëpp ci moom lañ bëgg a dégga ah, kokoy kan ma gan seeni gan ki nga xam ne moom la ñuy dalal tey face à nag ma jàkkaarloog moom ñu leen koy waxee face à face kuma jakar jàkkaarlool rek du nek ku ndoxe waxtaan bi du nekk waxtaani como waxtaan bi du nekk waxtaani ndoxe ndax lu ñuy waxtaanee moy li nga xam ne dafa lembe suñu réew ngeen bëgg ko xam ñu indil leen ko rek kon duñ def daral doot ñu jàkkaarloog suñu gan dalal ko tay rek du kenn ko doot ci ñuy wax Omar Mr a nuy na la Mr a nuy na la waaw fay naa la Mr def <laughs> sante yalla bu baakha baakha baax ñu ngi la gërëm bu baax si sa téway bi ak li nga ñëw pour ak ñun pour waxtaan ak ñun tay yaangi live ci Gambian Talent TV ñu daral la suñu kër bi ci suñu studio bi foofu ca Westfield. Uh, ah, Jerejev, you know, ci torop you know, I'm really, really am impressed and, you know, uh, staff, they are really accommodating and fi definitely kon ñu sant yàlla bu baax a baax a baax gannaaw bi nga xamee ne recommend nga staff bi nekk foofu noonu ak ni ñoo jàppale yéen ñu ñuy toppa di ñu seetaan ah, Mr. Um, um, Ann is over there in our studios ñu ngi. Jema fix some of the technical issues that we still have. Um, we know the image could be better. We are working on it. Again, bear with us, Rex. Still, we are working on some of these things. Yofi Gambiela, internet issue lañ nekk am ñu work very hard and diligently to have it fixed. Hopefully, eventually with seen support dinañ mën a take care lulu am um, yen ñu ñuy seetaan opportunity jël opportunité bi pour wax leen rek ne Gambian Talents dañ fi nekk askan bi ñu ngi góorgóorlu saa su nekk yéen ñu Facebook has recognized the efforts that we are putting into what we are doing doing. They know production and quality production takes a lot of time, energy, and resources. As a result, we are partnering with Facebook to start asking for subscription, membership subscription with only $5 a month by you that are valuing what we are providing for you. Um, so you can subscribe with $5 a month. We will be able to take care of these things. We don't want to rely on um, uh, waiting for the government or asking the government to do certain things for us. We don't want to rely on um, having corporate sponsorship. All of Njai Mune. Kula abal ay bot wax la fi ngay xolé bëgguñ gars yi wax ñu kenn wax ñu fu ñuy xoolee lu dul yéen ñi nga xam ne yéen ñu fi yéen a tax ñu nekk fi yéen askan bi seeni bot la ñuy xoolee seeni noppa la ñuy dégloo seeni gémmiñ la ñuy waxee kon ñu bëgg ngeen put yoo am am am am euh, hand where your mouth is ngeen jàppale ñu nag by donating to us next to your comment section bi ngeen ñoo seetaan di ngeen gis benn green tab foofu with a love sign a heart in it if you click on that tab it will take you to a link where you will securely and um, safely be able to contribute to us five dollars every month ah, laajte wuñ du bari ñu ngi leen ay bëggee bu baax baax yéen ñu ñuy seetaan Facebook ñu ngi leen ay bëggee yéen ñu ñuy seetaan YouTube ñu ngi leen ay ñu ñuy déglu si WhatsApp bi tamit ñu ngi leen ay bëggee fu ci waay nekk ci ñoon di ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalanu Mr Aan ma laaj la rek ma jàkkaarloog yow am na ñoo xam ne dégg nañ Omar Aan Omar Aan ah, people may know you from during the struggle ci xeex Yaya Jammeh xam nañ ne ko ci safoon nga some people knew you probably through social media some people knew you ñoo xam ne xam nañ la depuis Gambia ànd ak yow dem school amin màggandoor ak yow am ñoo xam ne kat xam nañ la am as ah, ah, Family bu baax borom ndom ba tank nga joge ñu ne cheikh bu reey nga bokk nak amna ño xamne mebi ne loolu lañ la xamal waaye ñi nga xamne xamuñ Omar am what can you tell us about yourself kan Moy Omar am ngeen balal ñu rek dafa melni ni ah, Mr An, fofu loolu dafa xawoon a am ah, mute ñu dellu ci waat ak mom rek ñen delloo balal ñu àq rek ñu ngi jéggalu ci lolu bu baaxa baaxa baax a baax su ko defee ñu dugalat ko si line bi rek ñu ngi jéggalu ci lolu bu baaxa baaxa baax comme ni mako waxé mu tok ci Gambia ma nek fi ci Seattle that is why we are having that difficulty right now am to actually try to connect him why ñu ko koo ci si waat si line bi rek inshallah di ngeen ko dégg légui ni ñu indi la Mr Ann one more time ah, yeen ñi ñuy bégee di ñu déglu fu nek rek ñu ngi lay Mr Ann nuyu na la. La pena, la pena la Avere, sorry, avere dafa dogon School. Dafa dogon, wow. Mm -hmm. for, it's, it's clear, for, for, the purpose of our listeners, ñi nga xam xamuñ Omar An, mooy kan. Um, uh, kan mooy Omar An? xam ah. <laughs> nga loolu <laughs> loolu question bu jafe la de waaye man ko ne rek am jos Omar An, ordinary person Gambian you know uh, demee school high school graduate 87, mm-hmm. ligay 5 years in hotel industry, hotel to be precise, then sila America in 1992. Lima taho na ginafinag mo dem jangi. But again, ligay de rek, you know, jamom demam laham hamut nyom. And through many struggles, and you know, fortunately for me, I was able to attain that objective, majanga you know, small family, for who my family is still there, my wife and three kids. You know, one is in college and two in high school. So, you know, change Binyona and it's my country. So my feeling mantam at least I should play a part or play a role for liggéey dëkk because the yañ jógee o dëkk yañ demoon muy Amérique fi ma nekkoon man mm-hmm. Legally, persabut you know ngay waxtu sax nga ne ay wis ne lii suma dëkka amoon ko te man maay concept of sa dëkkata mooy ne dëkka bi force yi duñ ko mun a liggéey ñun ñoo ko mun a liggéey hmm. ku nekk di nga sa waar bi sa time jot keneen ñëw hmm. so definitely loolu moom moo tax a ñëw waaye you know bu dee fay rek la fële moo ëpp a fay Man, 31 years, 20 years. Mr. Ann, I will, I, will, I will uh, come to that. You said you came to America in 1992. Um, then uh, it was yes. Sadauda Keraba Jawara's time. Um, of course, uh, there is no doubt you are the. Um, uh, who are your parents? Tell us about your family background. Yeah, my father was a, a businessman. He's deceased in uh, 2005. My mother was the former vice president of the Gambia, this Fatumata Jalo Tambaya. Mm-hmm. And I have seven other siblings. We are eight in number. Mm-hmm, four yeah. boys, four girls. Oh, okay, mashallah. Oh, okay. So, sub-parents, okay, I have four boys and four girls. Okay, um, what was your uh, parents doing? They're telling you America 1992. Lolo time is a daudala huh? Um, uh, uh, you, you, well, time out, yes. definitely. Mm-hmm. Um, was your mom working in the government at the time? Your father, you said he was a businessman, right? Yes. My mom, uh, sumay the only stint from government way before bimneke mu nekkee Dakar University. Mm-hmm. This was in the 70s. Mm-hmm. and su amaan break daf daa Gambia mu mu digna di Birkama Secondary School as a French teacher. Okay. Si lima mo na patin ako. Mm-hmm. Maybe di na am yenen students but bi magena bi gino na ranya ko dal mo e eh, bi mo teach. Ay mo da bu juga bu school te yan daga da da fi mm-hmm. ah, Gambia then mo teach to be nim jeexale Dakar ci mm-hmm. dem France University eh, for the studies. Oh. But after loolu liggéeyaatoon uh, ah, you know mu UN for the most part. Mm-hmm. UNDP. Mm-hmm. après UNDP so foog 1994 si la ko Yaya appoint as um, health minister. Mm-hmm. and that was for maybe a six months uh, stint. after loolu Steven Barr because I again génnee moved delluwaat to the UN system as a consultant and mu Liberia for about seven years before Munoz invest see, you know, this fight about Yaya Jami and others? Yo, personally, at what point did you join um, this? You were in America when Yaya Jame took over. At what point did you join the struggle to fight Yaya Jame? Or did you think Yaya was in there? Because your mom was a minister for Yaya. Your, your, mom, Yaya your mom was a, was yeah. a minister, was the minister of health for Yaya Jame, yeah. as you said. So at the time were you uh, condemning or did you condemn um, uh, the government or were you in support because ah mayor banko on rek Gareka. Ah? yeah man man to be honest with you I've, i was never a fan of coup d'etats because neko halal but ramadan read the understand and if you look at the sub-region at the time especially west africa uh, they were not doing well so man, I was not a fan of coup d'etat. Therefore, now I am on the record ne biya jambi the, the first appointment Sumayay, man, I was not in agreement with that. Okay? Waaye jël na because ku nekk ak decision, ah, jël na ko ah. na fa and mm-hmm. But I was not a fan of coup d'etat, so from day one, I was not in support of Yaya Jammeh. I was going to ask you if Why, you were not, did you actually try to convince your mom not to accept the appointment? But wax kongene you did your you did you did make your stance known Uh, privately privately you know di you do your part xam uh, hmm. eh, problem bi mooy man man suma believe and, and I still believe that mooy man duma dem si penca bi di gaaganti suma Wow, wow. waaw mm-hmm. waxi saal am na waxi cabinet am absolutely absolutely Wow. so am na fu am not fu ma Then mm-hmm. you know bu dee dañoo continuer mm-hmm. ben tey da ngaa respect tam mm-hmm. boundaries tam dafa am that's right but then at what point you could you you may not have been a fan of the junta and the coup but at what point actually did you start to go public um, some are, are alleging that, of course, your mom was in the system, and not you alone. A lot of people who are actually were in the fight against Yaya Jammeh, um, you bari ñu don doon wax ne okay well because fala seen cere doon tooyee rek um, Yaya moo doon sim seen cere all of a sudden uh, victimize your parent, well. of course, and um, hire ko génne ko si lim then mu fire ko and that's the anger that you and others have against Yaya and that's how you got into um, fighting him. Is it is that the reason? or was it for the greater good of society? What were your reasons? Uh, honestly, man, eh, eh, foog naa ne you know man tam foog naa ne am na nit yu ma i am not, I'm not yu bari mm-hmm. waaye ku ma sa dina xam ne man mm-hmm. suma mbir dafa teey mm-hmm. I don't operate out of anger you know I don't make decisions out of anger man you know what you see is what you get you know man I'm ma two face I am very genuine person Mm-hmm. And I continue to be very genuine. Mm-hmm. You know, uh, heavy, uh, you know, bread and butter stuff. Man, mm-hmm. I'm a person who believe in themselves. Mm-hmm. You know, mm-hmm. in America, as a 24 year old. ma liggéey place you bëree bëree bëree bëri et finally ma ñëw amal suma my own business build si my family for twenty good years man thirty one years laa liggéey musuma liggéey good. for 31 good years. Mm-hmm. Musumali mm -hmm. Out of that 31, 20 years, man, I stood for myself. Mm -hmm. Can employ you, man. Mm -hmm. And I, my Santa Yala, my family is intact. Mm-hmm. One is in one Halemui college, two in high school. Lala bugati si Adina. Mm-hmm. I am not going to steal. You know, sumayay nekana fi vice president. Bena yon duga si officer because amo fasola. Mm -hmm you know tajuli ak yooyu mm, dinañ dina dina dina dina ñëw si loolu Mr um, uh, Ann ngeen yaa ngi in America for thirty perspective hmm? Hmm? Hmm? perspective li Lima gis is the country affaire yi ne because deng da sa yaay nga mer no no no mer for what suma li mun na defal doomam yi defal na leen ko ken na juróom-ñetti di kenn sip. nit sax amul sip. Yeah, but you know, it's it's embarrassing to some extent, definitely, and that pressure is going to be there. As a public servant, ci luñ sa everything is out there in the public suñ la appoint di la hire the whole world knows about it I mean of course there is a lot of pressure coming along with this um, uh, uh, challenge te <laughs> foog li ma wax xam nga ci dara um, from when she was minister of health and of course most recently when your mom was vice president di ngeen dégg lu bari loo xam ne nit yi ñu ngi leen koo wax ñu ngi leen koo ñu ngi koo wax sa yaay mu la ne possibly this is not true wala su fekkee ne la sax it could be embarrassing nga tok ne ok dega ñu ne hmm. section 5 of the constitution jox na président bi doole for example ya, pour mu fire kii nii so um, uh, health minister Fatoumatta Jallow Tambajang has been released relieved from her duties speculations lan la def dafa sàcca dafa tappale dafa deful liggéeyam all kinds of thoughts are being am um, speculations are set out there and unfortunately duñ dee musa ñëw out ne lii la boromam def dañoo wax section bu jox president bi doole bi pour mu daxala rek and that is it So you don't face some of that pressure. Was that not embarrassing to some extent? No, no, you don't have to answer questions. ah ok ma ne kenn kenn bëggut sa sa kilifa ñu ne liggéey na. Mhm. bu wàcce ñu ne amatul liggéey. waaw be it public or private. Uh-huh. do we agree. yes that's right. kenn bëggut sa kilifa. Uh-huh. waaw fi ma waxee mooy. waaw loolu mun na laa merloo di. kenn du taxaw déedéet nit la boo boo may ma rek may ma may ma. Mm-hmm. li nga li ma bëgg a understand mooy ne. Ah. man man personally mm. li ma invest si si fight bi mooy ne man I believe in democracy in its totality. ok. weda nee na naxari na dañ ko jël with with grace. Mm. musuñoo tontu kenn musuñoo saaga kenn musuñoo wax nit ne demal nga tontul ñu kii man mii musu maanaam fake ne saaga leen ma kii wala tontu leen ma kii. because to be a Democrat, sabihin din nyo, you're gonna be tested. Okay, oh, oh, at what point did you publicly eh. join? Like na lol pa, at what point did you publicly join um, this fight? At lan ka contribute? Were you contributing financially? Da, da nga out there on social media? Mm -hmm. The advocate against the system. am am nga yow, am nga rally, rally uh, at some point. Wow. uh, during my community work in Raleigh, as far as my community work, when I started my community work, day one I set a foot in Raleigh oh. in 1992. Uh -huh. I'm on the record. Man ko wax fi nekk about a year ago January of this year uh-huh. you ma faa i I've uh-huh. always been invested in my community uh -huh. as far as community eh, and uh, these political tensions and stuff mm -hmm. I was involved at some level mean, ñu bari dinañ la wax try nañ pour organize ñaata yoon in rally mu fail because of politics but finally finally some people came around that's where when we uh, formed this group uh, actually ñoom ñoo ko form mooy uh, Gambia Democracy Action Group mm. in Raleigh. Mm. I was a member there. Mm. I was offered an executive position in that group. My element plus taw maa ñëw. Mm. li tax a ñëw fii. o li ma ñor man Eh, Gambia and mm-hmm. I was in Gambia Democratic Group actually maa ngi fa bentey mm-hmm. bentey maa fa as a member mm-hmm. because resign ma ok then bi eh, eh, 2013 we were among the group in the political parties together in Raleigh. Uh -huh, the rally. foog you will remember the Raleigh conference. The rally conference, uh We, it was financed out of our own pocket. Union ñoo feeñ. Suñ own xaalis ku nekk teg I mean ñu nekkoon si b bi yëpp bii ñoom Duga mm. STGDP mm. uh, GDAC mm. uh, Coalition for Change and so many other groups you xam ne xëy na at the top of my head mënumaa tudda ñëpp mm-hmm. you know we came together and we were having meetings mm-hmm. so ba guy yi d'accord ne this is the way to go these are the modalities mm-hmm. lii la because it was financed by members ñu nekkoon si groupe boobu noonu. Mm-hmm. te man li remember I paid one fifty. hundred and fifty. Mm-hmm. they considered that in the bank. pour fayal ñoom di current VP. Mm-hmm. Uh, honorable Ousseynou Dabo. Oje Diallo. Um, Halifa Sala, uh, Doi honorable Sala, they were invited, but I don't think he made it that time. But there was a private meeting on a month Moboba. Madam Vic Halifa Sala, honorable Sala, sorry, saying Halifa Sala, honorable Sala, she airport me for a meeting in Raleigh. So kung wag naman, I was investedly Barkadimba. Yang ina sa wawa because the records are there. Wawai bro. Means are there. Bro, dogo Malawai, Hamga Xam nga bot yeah. na antan. And um, time and time again, we have seen folks who wined and dined with um, the former president Yaya Jame were in the system, Makatane Mutwe were quiet until after either them personally or their families have problems with Yaya Jammeh, then they came out. So it's going to be very easy for young amon uh, stake in there, your mom being um, somebody that worked for Yaya Jammeh, then munyo dahako and you said, okay, Lulu is not um, a, a contributing factor. So what really can you, how, how can you really assure people that you are genuine? you were not one of those who were actually okay. um, um, uh, invested into it just because. And at what point did you even well, join me, publicly? Well, memory, memory. rek, mema, ma yeñu, ma foog naa background. Li tax ma ne la loolu solo ma mooy ne, mooy ne man xam naa yaay bi I mean, loo bany bany, uh-huh. oh, bañ. Loo bañ ne she is a professional. Uh-huh. Uh, mun na liggéey jafewu ko. te uh-huh. bu dee bu dee xaalis la bu dee la. Mm-hmm. mun naa liggéey Mhm. mu am xaalis bu bari ñëw mhm. jigéen bi may rek mhm. dafa am ñeneenti doom dem university déglul de ñeneenti doom la njëkk am dem university right Dakar university li ma laa wax nii people ñu ngi ñi dundaa moom loolu ñu ngi si dëkk bi fii in Gambia mu dem Dakar university si came back after Dakar university mu liggéey Gambia tuuti mu dem France France mu ñëwaat liggéey fi si UN système bi ñaata at ñetti at la liggéey si UN système bi. Mhm. mu sampa kiram kër bi mu dëkk kan nii right now moo ko sampa. Mhm. du du nguur du dara. Mhm. sampa kiram jàngal i doomam te nguur ñëwut. juróom ñetti doom jàngal ñëpp. si suñ famille bi macha allah am nañ fa ñaari jigéen yoo xam ne eh, si si kattan yàlla am nañ seen master's degree te loo xam ne maire bi moo ko finance. macha allah am nañ koo xam ne mu ngi saalo mu ngi am liggéey bu baax. Eh, santa yàlla. Mm-hmm. so maire eh, bi in terms of bu dee yëpp xaalis la. côté mm-hmm. problème pour ne daaxaan nañ ko amatul ku moo dundee ah te man tam si lu ndaw ma xam si Ismaïla gëm na yàlla de. Mm-hmm. ok gëm na yàlla. ok I mean génn na si liggéey waaye sonn. At what point did you join the struggle publicly, yow yo? At what point did you join? You know, were you there time in Gambia L, the Gambia Post, the Gambia L, the Gambia Post, Young for One, that be social media, Facebook, you know, in Singadora, I mean, join. No, no. Gambia L Gambia L I wasn't there. ok But mun naa laa wax ne. Um, xëy na bi ma nit ñi di gis really stupid. biti. being mm. biñ biñ biñ ree biñ ree di mile two nine. mile two nine ok publicly door di génn at mm. that time. ok but before loolu dama daan dama I used to go out protest in New York. Mm-hmm. protest in DC. Mm-hmm. at I used to contribute financially. Okay. I mean, Mangur nguur musuma defal dara. Mm-hmm. nguur musuma defal dara. I believe in myself. Mm -hmm. You know, I can just go and do some other stuff. Mm -hmm. I mean, jangana, mm -hmm. university. Mm-hmm. I have two degrees. Mm -hmm. You know, I have a degree in finance. I have a mm-hmm. degree in management. I can always use that uh, to better myself. Mm-hmm. Lolo bring me Lolo, Lolo will bring me Lolo will bring me to the next question. Of course, your appointment to the OIC nañ ci ñëw you ñu bari ñu ngee wax ñu xam Omar Ann ak ñu ko am um, ñu ngee wax lu bari and a lot of people say ne Omar Ann jàngut America he was there working at a gas station foofu only doon new guinea génnee ko fa coppet Gambia pour so what were you doing in America fan nga people are saying this these are this is what on the street you probably saw it on Facebook some people that are making these comments are not hiding it they are accusing your mom of nepotism and and bringing her family into the government Bimfaneke. I mean uh, buya good nii so nga ne am nga ñaari am degrees what are those degrees and what type of job did you do in America or what business just for the record pour ñi nga xam ne xamuñ ñi wax ne yow ci Isan Série bi nga doon ah, liggéey rek Isan Série booy nga woon waaw ma ma waxaat ko ma ne la am na a degree in finance am naa a degree in management ok North Carolina Central University yaa ma dégg maa laa dégg waaw maa laa dégg loud and clear waaw So, okay, in America, like like any starter, man, I've worked for Kroger. Mm-hmm. In 1992, mm-hmm. I've worked for Kroger. Mm-hmm. mm-hmm. I've, I've, worked for Sheraton Hotels, mm-hmm. right? Mm-hmm. I've worked for Quality Inn. I've worked for IBM. Young Madiga. Wow. I've worked for gas stations. I was a manager at a gas station in, in Raleigh, North Carolina. Okay, then I've been in business myself for 20 good years mm -hmm. before my new, um, before my nipsi Gambia fee. Mm-hmm. Lima wan yep is on the record. Mm-hmm. Rusna ta fi nak ne ma FM. Business ban fatongi business. Nay leer rek ban fatongi business. Njaay ak ñënd lo doon jaay ak lo doon. Huh? Transport my my own transportation business mm -hmm. in Raleigh, North Carolina for 20 years. Okay. Transportation as in selling cars or driving cars or what? Driving cars. Driving cars, okay. Um, well, like I said, these are some of the things that people are saying. ñu ne amuloo benn professional experience yow sa boppa wax nga ko ne mosulooy liggéeyal nguur professional experience what is your reaction to that of course wax nga fi ne in hotels liggéey inga in gas stations and stuff. Why? Um, why? Why, ma I don't think that is fair though nit hamne muela mum mu ne la moom liggéeyal na liggéeyal liggéey liggéey na thirty one years. Uh-huh. starting liggéey in Gambia here for five years. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. foog naa foog naa that's not fair to mi mm-hmm. ma dem ma dem li ma la because eh, certificate pour lan la is to give you an entry. pour nga dugga. waaw am naa ko. ay eh, I mean ne nekk si office bi boobu ma ne nañ ma xel Well, but, but I'm not more li ma mooy li ma of course um this is I know it can be um uh, probably uncomfortable or whatever but these are the words on the streets. lii la ñu ci nekk di lame. um of course your mom being there um even su fekkee ne sa yaay joxul la liggéey bi su fekkee ne sa yaay joxul la liggéey bi sax ñu ne ñu ne ñu ne taxi driving nga doon def dawal dawal taxi ba nga jógee foofu noonu street ñu indi la jox la office bu tooy buroo nga nekk administrative officer OIC di sol ay kos ñu jox la moto bu tooy ngay dawal jox la kër nga dëkka these are the things that people are saying from driving taxi on the streets of America to of course I mean uh, uh, office bu uh, tooy boobu with AC ah fair enough waaye uh-huh. waaye ok OIC joxuñ ma Mm-hmm. joxuñ ma kër. Ah. suñ kër laa dëkka suma kër yaay laa dëkka <laughs> so lan war a waa. Ah, sol sol kos joxuñ ma moto su ngeen su ngeen am seen conférence bañ gis la si gannaaw yaa sa karwaat sa kos bi yaa daa xatakataay président Barrow sax ah. ah. waaye nag waaye nag waay waay ku ma xam nag si loolu nga ma xamee de wax dëgg ne yàlla ni ma waxante dëgg man ma bëgg a suma boppa <laughs> yaa yaa daa xatakataay président Barrow si boppam yaa ko daa xatakataay ah ma ne bu ma ne bu ma <laughs> <laughs> ah, ma ma bu dama bëgg a suma boppa rek dama bëgg a suma boppa rek ba ku ma xam tam ah, I mean mun ngaa dem thirty years di nga gis ne man am always eh, you know I try to I dress to impress mhm. you know mhm. dama bëgg a suma boppa mhm. xaalis boo xam ne sàccuma ko maa ko liggéey ma nee nag ma jënda hmm. li ma li ma doon ragal rek nit dugal ma police ne ma tuumal ma wala dara No, and hmm. absolutely right, sir. In your defense, um, lima wax duma ko waxantu dama dekk ak yow North Carolina like you said. Uh, why, why, why, why, why, pausa pa, pa. Mm -hmm, rek, ma, wax foofu tuuti. Mm Xam nga, xam nga lan moo gën a important. Uh, lately, we, we, are, we are focused on professional experience, mm -hmm. degrees, and mm -hmm. stuff like that. Mm -hmm. But xam nga lan moo gën important man si li ma suma xalaat bu mm-hmm. mooy mooy integrity mm-hmm. integrity mm-hmm su la nee nga am all the professional experience in the world mm-hmm. nga am all the degrees you have in the world but mm-hmm. soo amul integrity amuloo dara mm-hmm. te man dama nekk nit koo xam ne bugga naa ku ne A ma ne B nga ne C ma ne D te boo melee noonu da ngaa njëkk a yar sa boppa da ngaa njëkk a yar sa boppa uh-huh. ah, time yi lifin bi read naa fu bari because man tam amoon social media ñu ne am na ñoo xam ne ñu ne ok these poor folks they are going to jail because understanding uh, the makeup of the OIC. I mm. am not speaking, I'm not taking brief for the OIC. I am not uh, uh, the person to talk about OIC issue. Dan ko ay ada mantam na mga lera mm-hmm. Anything pertaining to OIC, I am na kulen wahal. Kaya dama dama right my integrity is important to me. Kumadem ko Dr. PO and nurse, I am not going to take it because that's not what I'm good at. Uh-huh. Man, limamun, lola nek. Mm-hmm. Okay, well, I am Ligai was bro. I was just about to say I live with you in North Carolina. And for the record, uh, when I was there, you were very involved with the community. You were very involved organizing, mobilizing the community. The Defsa Alel, they make sure that people am jama. Kufa xewlenga dem am fekale and of course you were humble. Um, I was there when you were a gas station manager and I saw um, Gambians work with them, Nekasen boss, was a humble person. I didn't work under you. But um, uh, uh gis naa nga def loolu foofu bi nga nekkee no no. so su management la I think that gave you the management experience right. anyway, anyway, thank you for that compliment. Mm -hmm. all, all, I can say, mm -hmm. my integrity is important to me. Mm -hmm. Yo, how many I was one of the signatories for GDF. Mm-hmm. GDF léegi-léegi nga dégg de trop stop nañ ñu wax suñu xaalis bi fu mu dugga mm. man li ma leen di wax ñoom ñiy wax loolu nañ jàpp bés mm. nañ jàpp bés mm. billaahi ak waxtu bi nañ jàpp bés des na si ñoom de waaye GDF googu loolu li si taxasuuf li dafa bari de bro ma ne GDF li si taxasuuf dafa bari de last week rek of course di median interview yow moom gave sa yaay interview bi mu joxe ah, dégg nga mu ngi wax foofu noonu di laajte Human hmm? responsible. Human responsible. Uh-huh. You know, Tebente, I'm a signatory to that account. Mm-hmm. Darata Hosisuf. I can safely tell you that. Mm-hmm. Darata Hosisuf. mm Why your account, why why why, why okay why your mom though you were a signatory to the GDF account Halis bi di jaar sa loxo in Gambia sa yaay di pick up halis bi wala di receive halis on behalf of the coalition fooguloo ne fofu. yow connection bi dafa bari de buroo fi nga dee tese sa yaay ah dafa dafa bari nag ah. waaye waaye xaara xaara xam nga man yàlla dafa ma dimbale man dama teel a xàmmee conflict of interest issues fu mu nekk. waaw GDF foog naa ñëpp ñu ngee dunda. am soo ne xëj na some of them they are watching this programme. Uh-huh. man musuma bokk si benn vote sax boo xam ne dañoo vote ne ñu ngee disboos xaalis si suma yaay musuma cee bokk. Mm-hmm. dama rigiw suma boppa mm-hmm. understand nga even withdrawing money pour moom musuma ah. see bokk because suma maam. dafa am lu ma teel a jàngal loo xam ne dafa sëñ si man mu ne lu ñëwut loo xam ne ñëwut léegi mu mu si yoon ko mhm. araani foofu no e laawol mhm. mboolem loo xam ne ñoo léegi mu si yoon di ñëw mhm. so bees bii tey li coow bi tey man séntu naa ko bi foo so man pare woon naa mu meeting GDF foog naa ne xëy na am na ñuy seetaan man laaj leen man su ñoo am meeting ba ne ñu ngee meeting pour ñaan ñanaay vote oo lifin musuma cee bokka even benn yoon Leave mun dem yow journalist nga you go and verify because of ki moma jur te ñu ne mom lañu jox xaalis man musuma ci bokka mhm. So you knew there was a conflict of interest. Did you, by any play, danga sa Sabopa, right? In um during those uh, during those times. At, at, what, at what, I remember, I remember ben a meeting. Mm -hmm. I remember ben a meeting. Man dama bañon. Man nañ ko kenen ñu jox ko xaalis bi. Mm-hmm. man na ma bañoon si na meeting. waaye si biir foofu am nañu insiste ne non non kii lañ doon diilal moom la ñu continuer may leen well if that is the case dama recuse suma boppa te suñ meeting minutes yi foog naa ne bés ñu ko publier di the public dinañ gis ne li ma wax is in is in line mm-hmm. So how much money you you talking about that? How much money? Because Cholangi Bari, be last week saya yang challenge um, Mr. Dabo of uh, UDP pour publish um, uh, in the statement be um, for GDF. How much money exactly did GDF send to the coalition? Tio sa Coalition 2016. Uh, anyway, anyway, xam the dollar value mm -hmm. maybe passing of four point about 4.2 million. Mm -hmm. you know. Uh, it's been a while checkuma account bi but mm. foog naa about four point two million daal disbursed mm. nañ ko fii because uh, soo fàttali ko Fass Njaga Coy tam we gave mm. money to UDP uh-huh. Fass Njaga Coy mm-hmm. that was in maire bi mm-hmm. but since bi GDF dooree ba léegi xëy na one can safely say mm-hmm. five million dollars five million dollars okay and roughly How, how, how, how was all that money raised? How was all that money raised? Uh, the money was raised through online radios. Mm -hmm. You know, I mean, Gambians came from all over mm -hmm. and donated generously mm -hmm. to mm-hmm. make this happen. Mm-hmm. So definitely the credit goes to the Gambians okay. all over the world. Mm-hmm. Okay. So how were you determining when to send the money and uh, uh and the like naka ngeen doon determine loolu gars yi ñoo dee toog laajte ndax yéen dee toog rek feel ne dañ ko need how were you determining when to send money no no money be uh, it came by request mm -hmm. ne sola nañ mm-hmm. you know maybe for transportation mm -hmm. or uh, my father who time convention the one they had at Kairaba mm -hmm. uh, we sent some money for pay part of the hall mm-hmm. uh, registration so ni raised ito ni President Baro, mm-hmm. Nyoko Faye. Okay. Uh, anyway, dumanahin niya Nyoko but part of Halis being Faye, mm-hmm. being Yuni, for now it was either half a million or so mm-hmm. that came through GDF. Mm-hmm. Okay. Fair enough. Um, uh, election be jot mu passé, we've all heard and know the role that your mom played um, uh, in the coalition 2016. She's called the mother of the coalition. Lolo Pase and President Barrow, Ngoy, she, the office of the vice president, and of course saved it for her. It was given to her for a few days, and after it was challenged, after NUDEFCO acting vice president and um, minister of women affairs. Um, for a long, for a minute, whilst Nyungdon um, go through the gazetting process and make some amendments to the constitution here and there, coow li bari did you intervene at that point did you think it was worth it ñeneen ñi ñu ne ndax sa yaay the most qualified person in the Gambia ndax moom rek moo yelloo place bi bañ téyel ko of course dégg nañ ci interview bi mu ne mom she definitely um, approached President Barrow a few times but even offer names um, what was your uh, take at the time about this position uh, gonna again loolu loolu you know like li mm-hmm. ma xam nga ma xam a baax mm-hmm. dina xam ne ñu tam ñu know as a family mm-hmm. doon def too much pressure si maire bi but the decision is really hard waaw understand nga this is the first time I'm talking about it publicly but you know ñun tam feel ne hey kenn bëggut sa kilifa out there and ñu ko saaga and you know filoon nañ ne ne I the president president bi decline and you know a léegi-léegi yéen a affaire yi am na fu mu toolu dafa aw bosa boxoo bi loolu mooy dëgg rek you but do you think it was legal though? Su fekkee ne dëkk bi moo la ñor whether sa yaay la or anybody else do you think it was right though pour I mean insist noonu jàpp ne moom lañ koo jox even moom su ko bëggutee I know it might be tough ne da ngaa pour condemn sa yaay somehow but do you think it was right though waaw lam lama lama la wax rek laa dellu duma duma doom buy dem si penc bi di gaaganti you know semua man suma barke whatever the disagreement lalu why kabinet laa Why waaye lima kilifa jàmbur yi because am na ñoo ganti. like like hmm? all, all I can say mooy people bi am nañ right to argue based on the constitution Why sant yàlla nyuntam, tam based on what we understand about democracy mosu ñoo mm-hmm. wax kenn ne mm-hmm. waruloo wax you mm-hmm. went overboard am na ñoo xam ne dañ ko personalize di saagandey di def lu nekka waaw loolu loolu man gis ko you know am na ñoo you have the utmost respect for them foog nga ne you know you're ngi leen jàppal ne they are the consummate uh, intellectual ne they can argue their points across but if they go personal I mean then you kind of lose respect for them because affaire yi man moom ma ko keneen moom ma ko mhm. moom ko mhm. ku la ci am mhm. foog naa ne sa cër bi tam based on respect That's my ay nekk fa can keneen moo fa nekk waaye kenn du toog mu ne ñun jaay nañ ko yara deku tey su VP bi di current VP def na loo xam man d'accord uma I would put my eh, points across without being rude For rek one, waxee uh-huh. affaire yi dëkka nit mënu koo bo si am cër mhm. waaw mhm. bro lolu dëgg wah li nga wax nonu dëgg ne am um, uh, um, at the end of the day sa yaay def na am um, uh, uh, lolu wax deugal ne yalla until this minute we see people insulting and um, um, throwing shit or diko ñaké tegin diko ñaké yer te wax diga neex yalla lolu is not something lo xamné dafa am yer in democracy like you said bu na ñoo mëna waxtaan ci ñeek ak teranga te kenn du saga kenn kenn du xass kenn waye lima wala te moy yo, you have disagreed with other people's parents um, uh, in the past uh, publicly, why not your mom? you nga disrespect ko waaye fake fekkee i am not loo xam ne jox nañ ko wala ñoo ngi koo def te méngoo I mean, don't you think you should also be able to fake and if other people hold the position, just like in the case of when Yaya Jame was there, you disagreed with some of his policies and what he did. Don't you think you should have been able to do the same thing in this situation as well? No, but, but in a democracy, the, I mean, past, personal matter could be a personal matter, and people have to respect that. Mm-hmm. I mean, am na yoo xam ne mooy li ma la wax rek am na yoo xam ne waxi cabinet la ak waxi saal. Uh-huh. you know am na yoo xam ne you know bu dee bu dee yow affect la directly. Uh-huh. am na noo ko mun a adressé waaye bu dee yow you are involved. Mm-hmm. you know because because li ma bañ rek ma wax dara loo xam ne eh, méngoowul ak maire bi li mu xalaat and mm-hmm. ñu foog uh, eh, eh, lolo opinion ni Mayor because uh -huh. maybe the majority neko fa. Mm -hmm. Because man, I'm highly opinionated. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So for regular way, so mother, uh, you know, we tell them. Mm-hmm. This is critical time for the country. Mm. Mm-hmm. We're just coming out of a dictatorship. uh -huh. is kind of, you know, edgy. Uh -huh. So you, you let people be. Uh -huh. You let people be. Uh because I'm not, really I'm not, you are the Democrat make. Mm -hmm. It's pertaining to the way Ninu dan daan mhm. when it euh, benn exemple dina nekk like the um, Occupy Westfield. Wow! I wrote about something Occupy Westfield. Mhm. man ma ne bu doon man maa nekk nguur gi ñu ngi just jógee si dictatorship Lee is a stress test as far as the new dispensation. Mhm. nañ bàyyi guy Occupy Westfield let them let them provide them security and stuff like that. I made a post like that. Wat ham na post be so ko ride di nga gis ne eh, ngañut kenn xasut kenn suma xalaat laa wax mm-hmm. in a very respectable manner mm-hmm. eh, man ben I believe in my book suma gisee ne dama disagree time to time mm-hmm. I just throw a post out there in a very respectable way xam nga duma si xas kenn duma si So there were time, there were times that you disagreed with the policies of the government. Wala nga feel ne was in right when your mom was vice president. Is there anything like that? there were times you have to disagreeing. yeah, because, policy government. Because, because case in point, case in point, this is a president elected. Mm-hmm. I'm on the choice for name. Mm-hmm. Look, Gambian si i I'm gonna tap another person. Wow. Understand? Mm-hmm. Why why never So man duma dem nag get ko ne ko da nga am pour def by this is discretion. Mm-hmm. going to put on put on. It's an elected position. Mm-hmm. It's a different story. Why? waaye position, is an appointed position. Wow. And it is the, uh, the box up with him. Wow, why Lulu dëgg la waaye xam nga ñu bari am na the right and the choice for decline position be or refuse ko for example um, the interview bi last week rek ñu ngi ko dégg mu ngi wax loolu ne um, uh, ko uh, redeployé to the um foreign service that was demotion uh, um, of course dafa declined. boobu would have refused. so the don't you think she could have equally refused the position of the vice presidency Um, su fekkee ne really really am that was the case Cholangi, laa ngi bari nit ñaa she still had the option to decline it don't you think so anyway nice try Why, foog naa ne boobu daal moom moo ko mun a moo ko mun a tontu de wax dëgg ne yàlla waaw ñu dem anyway while while while your mom was vice president while your mom was vice president dégg um, she has um uh, uh, uh Komyosa case she was accused of being nepotic ñu ne dafa jël mbokkaam yi xaleem yi indi leen ci nguur gi xëcca yow sa case is the most used one most widely used um, uh, situation of course ñu ne indi na Nafisatu um, ñu ne wax ne ñu mel ni Khadija nekkoon di liggéey foofu noonu but we are using even the government vehicles and having access to so much government resources to even run her own personal business um, Susaya was widely accused of nepotism. what is your take on that? Okay. Well, okay, man, man, I'm na ham na not you, buddy. Uh huh. Why didn't I want to what's my negotiation business? Mm-hmm. Mm-hmm. Yamadega. Uh-huh. Hadiya ligayu singur. Mm-hmm. Nafi ligayu singur. Wow. Penda ligayu singur. Mm-hmm. Usman ligayu singur. Mm-hmm. Uh, Cherno ligayu singur. Uh-huh. ok yaa ngi maa dégg. Mhm. Mouhamed liggéeyam si nguur Mouhamed mu ngi North Carolina. Mhm. soo léegi ban doomam la employé. ñu commencé fii nii spécifiquement waaw waaw nañ commencé fii nañ commencé fii ma wax la Khadija ñu ne liggéeyut si nguur like you said sama de ñi nga ne liggéeyut si nguur. I'm my own business am I even forgot hmm. about the name of the business but we wrote a story in which we even took the vehicle which was of course a utility vehicle that was given to um, um, your mom Hadija Diko use and they were people were speculating that there were even other government resources that she had access to for run own personal business and mom, Hadija liggéeyut ci nguur being vice president gave her access to a lot of government resources yim not utilize for run business i am loolu lan nga ñu no, loolu Tony. la Khadija man de Khadija is the smartest person I know. Ah, that Khadija graduated in North Carolina. UNC ah, Charlotte. Right? Graduated in North Carolina, came back here, worked for the Gambia government On the Yaya Jammeh. mu a scholarship to go do masters in France. mu dem ba di dugal si ñu ne yaayam opposition la ñu rocci scholarship bi si si si ronam yaayam step in si time yaaya jaame mu dem euh, France euh, study foofu am masters degree am mu ñib si dëkkaam ñu ne bu liggéey déedéet euh, as far as même as far as utility vehicle mhm. ah that lifin de moo fi nekk benn tey de mhm. jël sumay bañ koo génnee si liggéey Euh, amut moto di next day. Mm-hmm. sport use mu ne mu ne moto nguur bu fanaan fii nii tey moto nguur yi yëpp dellu fi ñu war a dellu that Friday sport uti euh, benn utility véhicule bi ñu leen jox like dañ ko jox moom benn moto jox kër gi benn utility véhicule euh, loolu mu ngi continuer benn tey. mu ngi continuer benn tey. it's an government government. na utility vehicle bi même rek. Mhm. utility vehicle bi. ana moom dafa dem mu ne leen jox ma utility vehicle. déedéet. Mhm. it was assigned to her because of the office. Mhm. benn tey that practice continues. ñu nekkuñ fa. but we are happy for people ñu xam ne tam. ñu ngi enjoy parks. yooyu noonu. yoo xam ne it comes with the office. loolu loolu. so so so so so li gaay di ak yi doo mooy ne. Khadija was using this vehicle, government vehicles. Of course, Hamga is strange. Sometimes it's understandable, but uh, it's hard for people to digest and dissect lini. Ne ko xamne ligeyalul nguur own personal business am ñu gis am jiji moto jiji Hadija koo hamne ne liggéeyalul nguur gi mu di ko dawal wala of course nekk ci gannaawam dem di def own personal business am Lo hamne mom business am la. ma waaye pa pa mhm. pa mm-hmm. pa mm-hmm. with all due respect mm-hmm. foog naa foog naa is a is a policy boo xam ne Gambia government ñoo ne uh-huh. soo nekkee a minister ou a vice president dinañ la jox yow moto for your own official errand waaw then ñu provide benn véhicule benn véhicule bi pour sa njaboot la si suma understanding bu gaata so sa sa njaboot nañ ko usee rek sa njaboot nañ ko usee rek lañ la war a jox nañ la jox benn moto mm. eh, bon policy bi nañ ko direct to the government ñu change policy bi. Mm-hmm. because as I speak to you now the policy is still in functioning. non d' accord naa ak yow foofu d' accord naa d' accord naa ak yow foofu ñun biñ defee am um, that investigation it was in only Hadija alone even uh, matter of fact time boobu. Lawyer Dabo was Minister of Foreign Affairs. Doman Binyo Nafisatu um, uh, uh um, uh, was also the same thing. Ci lañ doon wax ne dañ ko hire at GRA mu ngi liggéey foofu noonu um, moto bi dafa xëy yóbbu Nafisatu from what they said back ko I remember a lot of people grilling us at the time for actually writing that story and we um, posted the vehicle number ak yooyu noonu waaye comme li ñoo wax rek mooy confusing mooy moto with Gambia government GG New isans ko fuel ko with GG fuel am isaan si nguur gi mu jóg suba ba ngoon dawalut benn errand si nguur gi a private citizen kuy def business am jël ko demee ko banque jógee fa demee ko ci kër sangam fa ko am am am am place sangam place sangam office to office running her own business wala mu in a moom bunti office am mu park foofu Be waxtu wàcce jot su dem bank dem bank. su buggee dem errand dem errand su buggee lifin I mean even though it was your your family but do you think me? Lolo is kind of ethical. I understand it's a utility vehicle, vehicle but you think that's ethical though? Uh, why Poglone? Poglone, eh, the, the Gambia government, they have to go back to the drawing board, you know, doing huh a uh, assigned minister, mm-hmm. Nyari vehicle. Mm-hmm. Man, eh, mm-hmm. eh, you argue, Moine, so they're them Nyari vehicles. You can only drive one. Mm -hmm. Then is it for you to park it at your home? Mm -hmm. waaw waaye fooguloo ne am um, uh, ñoom ñoom ñoom civil servants doo even though ñoom jox nañ la this utility vehicle am um, yow sa Saya fa nekkoon woo whether Aïssatou Njie Seydi la woo whether vice président current vice président Ousseynou Dabo la woo whether Bibi Dabo la woon ala ñuy fa nekkoon ñoom Seexu Saabale ñëpp don't you think ne yow war ngaa mun a seet sa conscience si boppa yow family bi involve mu óor la ne wel su fekkee ne pour jël suma xale yi ñiy dem school ñu yóbbu leen school ñu ñëw ñu bëgg a dem defi benn ñaari errands ñooñu mun nañ koo use waaye sa doom bi nga xam ne bi mu ngee liggéey liggéeyal boppam am business si boppam kooku war na moo mun a use moto boobu pour dem defee ko moom am business am bi def ci isaan si nguur géeg yëpp mu jël ko defee ko li fi ni boo you think that I mean help ma foofu bro <laughs> Why well, rule uh, allow one uh-huh. Uh, government government be they, maybe they have to revisit the policy. Mm-hmm. All I'm saying when today uh, another vehicle nela mm-hmm. uh, utility vehicle for secure. Mm-hmm. Secure sa dobi sa falling boka. Uh-huh. You okay. know, man, man, man personally, you know, uh-huh. I mean, eh, you know, man, I take taxes and them doing small sort. Uh-huh. Mm-hmm. Why but that it is okay. uh-huh. you know, mm-hmm. with, with driver, with mm-hmm. the driver, Eh, driver mu fa mm-hmm. mu drop ma ma dem suma soxla ma ñëwaat mm-hmm. but man most of the time the jël taxi dem doyi suma soxla aha ok ok well Benen bi ñoo wax mooy Nafisatu ñu ne she was working at her office office of sa yaay doon liggéey office of the vice president is that true has Nafisatu ever worked at your mom's um, office non non non nit lu nekk la ñuy wax. waaw dama nga leeral. I know your sister is very smart. ñëw Gambia ma tese ak Paradise FM she was doing a radio program I was just impressed. I was very. mus na liggéey VP office. office dina dina nekk si government payroll bu nekkee si payroll mooy des secrétaires pour ne government of Gambia mus nañoo fay na visa. Mm-hmm. and coming back to the BP affaire yi parti ma wax la leen loo xam ne ñun ñu bëri xamuñ ko am ñu bëri ñu doon wax ne taf moo jox suma déedéet taf joxut suma yaay benn kër kër googu noonu mm-hmm. uh, suma cousin moo ko moom ku ñooyee waa bëri koo xam ne suma yaay ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay Gambia government musu ñoo fay foofu ren suma yaay dafa dëkk foofu free bi mm-hmm. ah, time bi mu nekkee BP yëpp dafa dëkk foofu free without Gambia government paying a dime to Alpha Bari kër Alpha Bari ñu ne taaf loolu yëpp ay coow yu nit ñi doon wax la rek. soo kër gi nekk foofu noonu kër googu noonu sa government bi moomuñ ko. moomuñ ko te rentuñ ko. ba tey jii ok so moomuñ ko te rentuñ ko te sa yaay foofu la mu sa dëkka yow never live in the government am um, uh, village depuis bi mu nekkee VP sax demutoon dëkka si benn kër gu. musu musu musu Eh, si si si si benn time biñ ko génnee maa ngi maa ngi read like comme office yi vice président bi. yim title mm-hmm. ni ko noonu ay ten nit ñoo xam ne mënoon nañ ko liggéeyal loolu yëpp jëlu ko ñaari nit rek ñoo ko doon liggéeyal. Mm-hmm. fi mu ñaari jànka rek ñoo ko doon liggéeyal. mus da am ten yu ko liggéeyal. Mm-hmm. at a time. ñaari jigéen rek ñoo ko doon liggéeyal foofu. dem naa li ma laa wax ni. ah nga dem seet yeneen am na ñu ko doon gàdde di Gambians te bu dee li ma they can equally come out to the public public So ngene cousin Alpha Barry sa cousin for the record for the record ngene sa yaay fim as VP sa cousin Alpha Barry Momom Kirby. it was in government issued um apartment or housing. It was in government. That is, that's, that's correct. Okay. Ah, lolu leer na neex na dégg ah. ok soo ngeen ne Khadija boobu moom boobu foog naa ne munuñ cee munuloo ma cee dimbale ci affaire yi bi andi utilité véhicule ba Nafisa ngeen ne leer na ne. Ah, Nafisa liggéey duma la duma la mun a dimbale du la mun a dimbale. kon suñ ne suñ ne ministre. Mm. dañ laa jox ñaari moto. Eh, beneen moto bi pour lan la pour nga paako sa kër. déedéet waaye mun nga ko. on laisse ñu change policy bi ne. li maa wax rek bro ah. li maa wax rek bro mooy ma ne it's more of a policy thing it's a policy thing but sa consent tamit war na laa li bad policies just like we are saying ba tey ji ñu bari ñu ngi argue loolu ne Yaya Jammeh am luwaa yu bari yim teg an unjust law is no law luwaa yu bari yu Yaya Jammeh teg ñu ngi wax ne nekkul right ah no no no no you want the record the vehicle policy bi bi existe is Jawara waaw non loolu laay loolu laay wax ni ay noonu is Jawara's era waaye waaw xam naa loolu waaye li ma wax mooy ma ne xam nga am na luwaa yu bari non li ma wax mooy dafa am luwaa yu bari yu Yaya Jammeh teg yoo xam ne ñu bari dañ dee argue ne they doon consider them to be genuine laws liñ dee wax ne an unjust law is no law so su fekkee ne policy boobu mu ngi foofu pour ñu jox la ay moto pour yow nga jox ko sa njaboot am fogloon ne sa yaay consent am war I don't think people will have argued su fekkee ne moto yi dañ koy use pour yóbbu saraka yi wala ñeneen ñuy dem school ñu yóbbu leen school wala ñu am yenn njaboot because when we wrote this story dañ invite some experts. well bu dee bu dee bu dee bu dee bu na si then all the ministers from Jawara era bete tey ñëpp daanu nañ si loi boon xam nga dafa am kenn koo si xam ku doomam don use moto pour dem def ko moom own personal business am di si liggéey xaalis like ah, said, ah, pour dundal boppam pour dundal bopam because that is what was being said in Adijas case hmm? man tam si deka bi laa dëkk aha fii laa dëkk aha te jamono jawara ben tey tam bi aha <laughs> waaw eh, du ma fi tuddal benn tur <laughs> waaw yéen dem si yow sa affaire comme niñ ko waxe rek ci gannaaw ñu ne amuloo maxaama bi yow da nga nek North Carolina you were doing non-professional work experience Um, how did your appointment in the OIC came about? Because nobody would like to know, and I think it's fair. Pour nobody, ham, ñu ne sa eh, Not in a million years would Omar and uh, have been given this position su nekkoon ne yaayam vice president. Su doon jamono ji for example that your mom is no longer the vice president, you would never have had this um, uh, uh, appointment from what is being said. What is your reaction to people who um, uh, have that belief? Uh, but I mean, in all fairness and with, with all due respect, Jackson Gumun, man fognane, so de mene yange udli, uh, fognali nyo nje kaset, ke mm-hmm. mahad, na amga ko. Mm-hmm. Man, man pamaran, amna ko. Fuma tek pur udli, dangane na fes na or something, why ne amma mahamam bi buduga. Fognane, I am capable, ñu bari liggéey nañ ñoo man si fànn yu bari foog naa ne ayam kébegul li ma def fële tam mooy am nga si biir wax ma ne la soo ma joxoon liggéey noos tey du ma ko jël because mënuma ko mm-hmm. alsaan nga mm-hmm. so foog naa that is clear so nit ñi mun nañu wax lu nekka because understand naa the anger coming out of and the frustrations of course coming from a dictatorship understand nga ku nekkaa ngi eeji uh, dama apply bi ma njëkkee ñëw ay kéemin januari su ma yaay dama njëkk a oo meeting mu ne ma ah man de xëy na sax mu ngi seetaan waaye pour rek ma refresh mu ne ma man de ama ama lu ma la jox de fii liggéey moo fi nekk waaw man bi ma ñëwee benn tey kenn du wax ne duga Omar and business because dama ko bañ because understand naa the mindset and the psyche of Gambia because dama dem dugaa yow business tey eh, ba start business, you you start with papers. Then you do papers, elect come tey su ma nekkul i ko papers all over You know how te business bii la fi dooroon amut you know ñëw mu ne la door naa Omar Ann business amut zero They ba elect She kattan yàlla kenn dooma dégga foo ma warut a diga because man dama njëkk yar suma boppa What tax ma ne ah, people you make all this noise but what is important to Omar and is my integrity loolu moo important si man. but why why eh, why OIC doo why OIC doo yow da toog jógee Amérique li sa yaay nekkoon vice moo tax. lu ma indi mais dafa am lu ma indi si table bi loo xam ne euh, dafa important. Hmm. liggéey bu liggéey bu bu booy mën a def si àdduna. Ah. bu dee intégrité bi nekk ba rek sotti doo. waaw intégrité mooy yëpp ak loo soñu ma boo mun a am si àdduna si. Hmm. amuloo intégrité amuloo dara. suma hmm. bëti man. xëy na ñu bëri nag ñu ngi yaakamti waxoon nañ ko waaye nag na yàlla am tey man yar naa suma boppa ak suma euh, ñaani waajur duñ ma bëgg gis bu ne yàlla duñ ma fa gis because xol boobu ne man amoo mm-hmm. waaw su doon dama dem suma yaay ma liggéey dama apply suma application bi son file euh, ma toog euh, ñëw naa fi januari ama liggéey njëkka seeti paper bi ay apply gaypa gaypa laa njëkka apply So ñu ñu toog ñu ne ubbeeguñ position that was uh, March April May June till la toog naa almost six months before my door ban ban ban position nga apply ban position nga apply on Gaipa what position did you apply in Gaipa in Gaipa. Uh, Fadina, the, exactly. why it has to do with administration. Fadina, I think exactly because yeah, but I still have the paper bima bima apply. Mga mm-hmm. ko amike, why find out exactly uh, how it was captioned. Mm -hmm. But it mm-hmm. has to do with administration. Mm -hmm. Okay, it has to do. Okay, so guy parenga apply. So uh, OIC um. Where you just uh, where these opportunities told to you? Apply, apply, apply, apply FAO. Okay. I did apply for FAO. Okay. So your were these opportunities yeah. presented to you or I mean yow yaa on seetal sa boppa di researchal sa boppa ba xam ah lii am um, uh, um, na lele amna um, na naka la fa demee. Eh? no no because man këram uh, uh, suma yaay own këram most of the time man maa fa nekkoon time bu suma benn ka nekku so suma benn rakk bi bu demee liggéey office am suy waaja daf ma indil newspapers Kadija you know my ngi gis ay openings yu gars advertise bu GAEPA bi loolu la woon moom mooy newspapers yi den bu bu OIC bi boobu tam moom mooy indi lifin mu ne you know ñu advertise OIC jobs this is even though gars de ñu ngi set up secretariat bi but maybe this is a good time to apply so ma apply bàyyi ko fa so ba benn bés uh, kenn benn secretary si secretariat bi oma mu ne man ndax mun naa ñëw uh, si secretariat ma ne ko mu ne ma gars yi uh, at the petroleum house. So mane anyway one nañ bañu right now mu ne ma no niduloo sax pour ñëw léegi waaye elect time bini. so the next day ma November, them ba dem si secretariat bi and you know I went through the rounds there and I talked to people mm -hmm. you know and the next week they wrote to me ne you know bu ma d'accordee liñ maa fay ñu appointment letter and that was it. That was the OIC, right? You talk about OIC, right? Okay. you look in our you look you look you look in our camp. You went through all the procedures and processes um, uh, uh, of, of of interview applying um, interviews and the necessary screening with everything. Can you look in our camera and assure us that your mom does not have any influence in your appointment. Ah. In your ah, in, <laughs> necessary. Lavate, so we take an oath is still fine under penalty of perjury. Ah. I, I, I over an. Ah. Dama, dama apply OIC New York. My job, my Say I am before they run, they run the story. I'm going to be their story. You know, dafa jël OIC bi jox ko for the record so so so ok so sa yaay su la joxul liggéey tamit amul si benn influence Omar Ann sa yaay koolut Ken. So I did not have a single influence in your appointment at the OIC you are on record. man man eh, Pa Ousmane man dama apply I wrote an application to the OIC I was called in. Well, am gonna, am Sumaya Averam the office. In the net, is Averamle, Waumadara. But that I can tell you. Bro, bro, yang ñew ndank ndank de, yang ñew yang ñew junja de. Am nga do mëna richa. Yang ñew junja de. Am am am nga do mëna richa. Do mëna do mëna richa because uh, because of office bi nim demee la. So defee ñu ne def nga. So defut ñu ne def nga. So that's just the nature of the office and I understand it. And, you know, people have right to these things, of course. But man believe nane, dégg bi nepotism to go yo man I don't believe in that. Then why yow yow demuloo apply I will believe that ni nga mel ak sa the fact na yaa ngi dëkk si if you are going for these things either you are applying uh, or you are going for an interview or you are called for whatever. you will you will keep maybe posted. léeg-léeg def naa ko de léeg-léeg Be naa Be de. Mhm. be maa dem bi dem naa sukkal si ronam de ne ko ma bés bii lañ ma oo ñaanal mu ñaanal ma ma dem loolu léegi def naa ko. waaw bi fa jógee bi nga fa nekkee. waaw jëlu jëlu bi nga fa nekkee jëlu téléphone xëcc téléphone am kum kool ne ko ma ne Omar a ngi de. def leen li war ah waaw sa kanam wala. <laughs> tamit defut ko. ba pare nga Pa Ousmane. ah Pa Pa I mean, all jokes aside, mm-hmm. uh, you know, I'm war na yëfi OIC bi want to see cool ba man mm-hmm. liñ ma lingma lingma fay ngur moo ma fay. Ngur. Mm-hmm. so mu affaire no na no wut understand but man li def honestly I I love my country more than my ko Why? you know suma what si you know and it's very tough for my nekk fii but dama believe ne you know. Eh, liggéey eh, liggéey bi dëgg bi laaj. Mhm. ñun ñoo ko mën a def tam. Mhm. you know. waaye Omar Omar Omar amuloo loo yaakaar Omar ñëpp xam nañ bitim réew ni mel nga bàyyi sa njaboot gi bitim réew nga ñëw yow kenn a toog foofu noonu Omar dafa am loo yaakaaroon de Omar fooguloo ko. nga bàyyi sa njabot gi bàyyi everything bàyyi sa ligay bi and you said you were making more money and you said you were making more money aha wa mema mema mema tan Yaya Jammeh 2010 lima ma la di nak is on the record 2010 suma njaboot jabar ak ñetti dom ñëpp dañ ñib ci Gambia fini 2010 dama don dama don waje ñib ci in 2010 suma jabar dëkk na fii six years with my three kids going to Marina High School Because can, in six years, man can regman kon America delegate. Because the yung FEMA said, said, said, yet, when ni, ni Terry be mel, this is not the right time for me to be here because uh, I was uh, man my from the eh, living ni de did di deme man ende eh, eh, wood suma I uncle Paul name, my society you know safe and stuff like that my wife is man jabot man ma America man kena suma jabot get ne in 2010 suma ñetti doom yi nekk fi soo not ne dama jékki-jékki rek suma nekk fii rek ma ñib si 2010 laa ñi ko ñib si Gambia fii but I went back home to North Carolina te li ma laa ni foog naa ne bu dee dama fen nit ñi xam nañ so am um, OIC bi next year 2019 Uh, what will happen to the secretariat ñu ngi foog ne seen liggéey bi benn one year la rek su conference bi jeexee rek ñu taxañ leen seen yu parking is that the case or is the secretariat gonna continue ah for the record uh, xam nga OIC man duma leen mën a waxal man suma liggéey mm-hmm. pertaining to the OIC mun naa ne is contractual it runs to 2020 Okay. Man, man, man suma employment mm -hmm. with the OIC is contractual. Mm It runs to But in terms of the way the OIC is being governed, mhm. I cannot say much about it. I'm not the official spokesperson. Mhm. loolu dinañ la ko respectal xam nañ ko ne ko suñ brother Essa Bokar ak Ñang Njaay um, dinañ waxtaan ak ñoom of course um, we've had discussions with um, Issa in the past and have discussed some of these things with him dinañ la ko respectal xam ne bureaucracy la rek that's how it operates so yow 2020 come 2020 what next for Omar Ann da ngaa dellu uh, si waat America uh, what next xam nga da ngaa dellu si waat America loolu loolu du lu jafe pour Omar Ann hmm? loolu du lu jafe pour Omar Ann because jox la suma work history hmm. ne la out of 31 years bi ma liggéey 20 years dama liggéeyal sama boppam mm. eh, te nit bu leel boppam 20 years mooy na gom na boppam mm. so nit ku gom sa boppam nag eh, eh, jafe-jafe doo war jafe-jafe liggéey doo ko am mm. because man I don't mind in what it takes uh, any kind of job pour ma sutural sama famille lan laa bëggaat si adina am 50 years old today lan laa bëggaat comme li ma bañ kay ma dem sàcc mbiri jàmbu wala ma wala ma lepp something like that waaye yàlla mu ma dural sant yàlla mhm. te àddina jaar jaar la mhm. du ma toog fii ne yàlla jaarale na ma place sutural ma place for twenty good years tey nit ñi toog daan on li ma doon def foog ne is eh, living dam déedéet tey dama sant yàlla ne yàlla jaarale na ma si place boobu noonu that was my calling at the time mhm. life yëpp jaar jaar la steps la you have to evolve at some point you know bu dee yàlla ne twenty years dama ko invest si lii man toog ba fii tey ne dama dama yërëm suma bopp because of lu déedéet du ma defal loolu kenn. waaye ñeneen ñi of course li wax nga fi si waaw moo ma suturaal moo jàngal suma xale yi moo ma suturaal and stuff like that. Mm-hmm. so ma toog fii tey ne I'm beating myself down I'm not gonna do it for any person. Absolutely, no, absolutely. Um, there's dignity in liberty. Ñun ñëpp am anyway. Bitim there are so many of us here people ñoo xam ne am um degrees and they are not actually using their degrees. You will do what favors you, sa family. There are so many reasons, and everybody's situation is definitely completely different from the next person. Um, uh, uh, uh, you choose to do what you do. Like you said, you could have been working in in in in, in the corporate world, but you choose to do your own business um, because lolo mola la favor. So lila aram sa def kenn feerul la sa bill si Amérique ñun ñëpp xam nañ loolu so ñiy wax loolu probably ñàkk a understand how it works wala bugg wax maybe ñoo moo tax ñuy wax loolu but coming back to it rek yes ah, wax nga loolu ñu ngi leen a jiiñ lu nekk nag um, of course ku boot bukki xaj boo la maire bi nekk woon VP um, ah, dégg nañ ci interview bi mu ngi leeral affaire yi letter bi wax ne moom la sign on ne as acting president ah, some people are also arguing ne you know what actually maire bi is very strategic dafa indi Omar Ann pour mu dugal ko ci système bi mu xamagum nanda pour yi ah, pour am 2020 2019 bi su baroo randoon wera dina rando si three years yi wala 2021 mu sampande ndaam nag taxawal parti boppam su ko defee ngeen gën a ràccu nag phase six bi what's your reaction to that ah, Esta é mãe, vez vou. Vez vou aumentar a I'm gonna continue, Malalidi. Some of these things, some of the people that are condemning or saying these things, you go openly. ñun li nit ñi di wax lañ leen ñun dañ leen a indi yéen xam nga of course you may not have the opportunity and I take this opportunity to actually um, uh, uh, appeal to our public figures or people in the public domain because people say so many things about you Where whether degala odu degate lusi bari maybe amut sax will you have the opportunity or is it professional or mature ne danga tok pour tontu lepp luñ la waxal you wouldn't be so that's why jota yu melni am solo nga xamne dinañ la indi nga waxtaan ak askan wi nga leral yeen xam nga you have to xam nga moy li man always democracy is mm-hmm. about inconvenience mm -hmm. constat nga hmm. léegi-léegi dinañ la bugg a cuuxa waa sànni dara foofu noonu mu nekk meer pour rek nantu ah. tam you know bu dee you are hmm. you are at peace with yourself xam hmm. nga mooy dëgg bi constat nga yaa loolu waa leer na de dinaa la ko wax de meer moo ñu jur waaye man musuma gis suma yaay teg tànkaam si koor ba benn time man bi ma ñëwee holiday fii bi ma ñëwee holiday fii ma am ñu jox ma excitation sila Mary Anna man court man that was the first time magismay tektan kam si even a court house so affaire yaha wala din dina yaha alalen nguur ak yooyu loolu definitely da loolu du ay eh, wax dëgg ne yàlla mm-hmm. loolu xamaluma ko de wax dëgg lan moo lan moo tax ñu daaxa maire bi ci li nga ba pare evidence bi mooy ne mooy ne you know bu dee doom yi mu mm-hmm. mm-hmm. am la maire bi moo jàngal doomam yi yëpp benn doomam mosu fee am government scholarship maire mm-hmm. bi liggéeyul nguur pour jàngal doomam mm-hmm. si liggéey bi mu doon liggéey nii di eh, with the UN yàlla suturaal ko fa mu mun a def moo def sampan na si du du nguur eh, si kër ba mu sampoon eh, barka démba kër boobu la dëkk adventey de mm-hmm. waaw te maire biñ ko génnee biñ ko vice President sax next day bi amut moto boppam lii am ten yu te xam nga lii yëpp dee fen la nit ñi mun nañoo ñëw ne fen kon lii man maa ko dunda man su ma liggéey su ma liggéey OIC taxi laa day jël su ma ko gars yi OIC mais ñu ma dégg sax I take a taxi to work su ma wàccee léegi sax di staff at the OIC ñu may ma ride su ma amul ride I take another taxi because si fi moto yi ak yooyu def na li man gëtëlu anyway so yow daal gars joxuñ la daal amin moto yu tooy yi yow joxuñ la si ak cër yu baax yi ah loolu la ñoo de ñu ne ah, gars yi bi di dem fu nekk di indi xaalis arab yang leena jox xaliss bu du diex millions ay millions si millions nar yi ñu ngi leena jox xaliss bi yi nang ko pasar pasar di jënd moto yi especially moto yi ngeen wara jënd pour OIC bi ñu yaane ne su paré sa su conference bi jéxé sa yeen yéen ko jël amin lifi yow ban nga jël yow ban ban nga jël <laughs> ban façon ngi moto nga jël. xanaa ah, ah, ah, bu bu Lexus amé man nañ ma jox Lexus. Mbadou. <laughs> <laughs> yéen a déglu di seetaan ah. face à face fii si Gambian Talent TV Omar Ann mooy suma guest moom laay waxtaanal doomi Bawuma vice président Fatoumatta Jallow Tamba Jang muy liggéey fële ca OIC si Gambie dégg ngeen li wax mu ne moom amewut moto si boppam sax si jamono ji OIC joxuñ ko moto like it's been speculated or it's been set out there um, ne joxuñ ko kër fu mu dëkka ci kër yaayam la dëkk ci jamono ji nii and of course mu ngee dem di liggéey comme ñëpp nag dafa jël taxi pour dem liggéey wala co-workers am yi ñi amee moto am euh, jox ko euh, may ko ride loolu mooy li nga xam ne wax na ko xam na yaayam ku baax la am yaayam musta taxaw si koot xamul ñu njaajte alal jim am daf ko liggéeyal boppam balaa moo liggéey nguur si tënka lii la Omar Ann wax kon ñu dellu si waat ak moom rek sa yaay du you know lu tax baro génnee ko lan moo tax Barrow dàq ko wala génnee ko as VP. ah yaa maa laajal lu ma xamul de. dama daal laaj rek. you know ah foog naa foog naa moom si interview bi li mu wax foog naa it was hmm. si interview bi. Hmm. Ah, man man li mu rek mooy ne ah, indi nañ ko leetar am ne ok constitutional yi relief nañ ko eh, mu mu yàlla ñetti ñi indi woon leetar bu ne leen waaw leen ma nag. ma suma ma few personal items yi ma am fii eh, mu génn tànk leen bi bi mu leen tànkee gars yi escort ko ba kër këram ba pare mu ñaanal eh, detail bi security detail ko yóbbu eh, këram mu ñaanal leen ba pare bu ne bu fa muta yi fanaan nañ delloo muta yi lii de mun naa ko Omar li ma bëgg nga jàngal ñu foofu so that's how it is nga VP the number two person in the country am am security because danga ko i am um, ak ak yu bari eh, you get protection am um, dem naa seen kër time binyo ñoo def suñ tobaski ndewenal bi bi Gambia last year try for interview maire bi but fekk mu ngi am meetings and the like we couldn't but I saw the security out there I know how it is so bés buñ ko the same day la nyaka. all of those things she was left on her own foog naa bàyyi woon nañ ko fay pour bés boobu noonu. ok waaye after after dañ ko kott tout. ok. waa bés boobu foog naa foog naa si kër ga fay fanaan nañ fa. Mhm. then uh, ida weekend boobu noonu ñu wàññi ko tout. so ba tey jii mu ngi am sécurité ndax amatul sécurité. Eh, ñu ko jox ñu ko jox security eh, because mu fa am fele sticker eh, alpha because mu fa am yena bagage am bente yo ame ay kayit la so ñaari security mu fa way mu ngi kiram dam ok so suy genn si mbedda wala dem doxi soxlam kenn du koy top mom kenn la ligi dere dere mo so man man ma drive ko wala kenn si suma ragay drive waaye li ma wax mooy professional security comme military wala police joxuñ ko kenn ku ko gaat koo xam ne professional security officer la. pour di ko toppa waaw. déedéet déedéet ok non xam nga rek jàngata nekk foofu noonu an Stephen nga nekk having that amount of power. ñu laa gaat ñu laa toppa sa life dafa am ñu ko contrôle ñu laa. am check lépp looy def appointments dañ laa schedule lu nekka doo tëb rek du ne yow sa coobere boppa nga nekka fu la neex dem lu la neex def lu la neex lekka and like nga toog rek bés and you happen to lose that xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga mm-hmm. li si nekka mooy ne mm-hmm. xam nga ah, ah, nit ku nekka rek waal ko dëggaam mm-hmm. mooy ne mooy ne place yi yëpp place ona ak yi yëpp yàlla moo ko joxe loolu iya, la jàngat boobu laa jéem a indi balaa balaa mais mais ma currently koo bàyyi in terms of jama bi mu am ak dëkkandoor yi. and stuff like that. Hmm. so li genu na waaye génnu fa. Hmm. so mooy ne ba mu ñëwaatee rek dafa mel musu faa bàyyi because jama ba mu amoon na that same jama laa ma ñëw. ni du dem si bi du du jël moto so yu bëri daal I mean definitely yu ko oh, ok um, that's fair enough I think it's important to highlight some of these things comme li nga wax noonu jàngata nekk rek ne am um, uh, benn poème uh, poem mos Moserid um, Thomas Gray in the community. the boast of heraldry the pomp of power all that beauty all that wealth ever gave um, uh, the parts of glory um, foog the parts of glory uh, awaits the inevitable um, led, not, led to the grave. The boast of heraldry, the pomp of power, all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable um, hour. Um, when a luai munti am aduna rek munti gis Do mujjee fenn lu do si bàmmeel at the end of the day so humility ak humbleness dafa am solo ci doomi aadama ndax mun nga am lu nekk bes am nga tok rek wara a ñàkk loolu um, is a lesson to learn nono um, so maire bi ñu ngi koy jiiñ dafa sampa ndendam political party bopam lolu am la ndax amul deyagul lako deyagul lako as admin officer di OIC lan mooy sa liggéey Omar waxuma la nga ah. waxal keneen yow lan mooy sa liggéey foofu lan mooy sa liggéey foofu at OIC. Uh, basically is uh, st streamlining the administrative processes and stuff like that. Uh, man, all I look at is the workflow. Later, uh, uh, work we continue, you know, lo ame mënon na jafé yow nga ñëw indi sa on halat nga yombal ko si gàttal rek nga am a constant workflow for having everything efficient, uh, productive at the same time. And by doing that, Fognanimari add value. And day-to-day choice, it could be from the past because uh, uh part of HR2 is part of what I do. And most of the applications, them, it comes through me, my screen, applications, uh, schedule interviews, and stuff like that. You know, uh, loolu bokk na suma day to day activities euh, when it comes to euh, suñ ex euh, guest yi externally I am responsible you know be be Saudi fund or yeneen li fi ñu xam ne ñu ngi di la when they coming here logistics hotels and stuff like that man maa responsible you know part of payroll too I do payroll part of my si suma TOR loolu mu fa you know ñaata staff ñoo uh, nekk under you how many staff are under you uh, man currently no man it's just my boss and me oh, you have the uh, admin head mm-hmm. man maa nekk si roon admin oh. admin head bi oh, that's hmm, tukki tukki bu leen so ama kenn ama kenn ku nekk on the meat. Pader in terms ñu leen a jiiñ nag na ko Pader Amin ñu ne seen tukki yaa ngi xaw a bari ñu ngi leen a lii ah <laughs> waaye yéen tamit bokk leen. tey tey ngeen dem tey ngeen dem Saudi mm. gannaaw ëllëg ngeen dem Bahrain di next day ngeen dem Malaysia wala <laughs> different living ndax yow bokkuloo yooyu Pader Amin. waaw man man tukkee ma the only tukki bi ma def mooy bi ma demee. tuba si suma xale yi te loolu man maa ko suma booba dem suma xale yi ma ñëwaat <laughs> Acha <laughs> Well, this is interesting, Mr. Ann. Appreciate you taking the time to talk to us um, about a lot of these things. Your hamne comme uh, ni ko waxee si you might not have had the opportunity to clear the air um, not because um, uh, you don't actually have the opportunity waaye doo mun a nekk ci internet bi di defante ak nit ñi 24/7 um, uh, li duuf ci nag bi xejut si cin li ñu ngee ñëw am tënk ci yëf yi waaye ma laaj la rek sa yaay of course being VP dégg ngeen lu nekk lan mooy di statement bu la gën a naxari loo xam ne dégg nga ko Why you just have to brush it off rek and let go. wala nakhar bi nga tedde ko rek be suba jot nga sangu rek fakhas ko yeb mu dem yon what what is that that statement I know you hear a lot but which statement mo la gina a naxari waaw am na ah, binda yi bari na binda yi bari na boot am bena bo xamne bo bes bo bes bes bo bo nakhari won na ma mm-hmm. because yi bari dama ko dan ri ni rek loolu way am bena bes amna am ko binda mu ne mu ne ah, even in her own life she's confused or something. I'm not nungkobinde. Unwa exactly. Why boys bo bo bo nari nawa? Because Pausman, did ni the Gambia, who u ko hamne sa papa sa idea po ngajud sa sa siblings kenda musi high school Yo nga si Hale ngadem high school ami high school nga fa head guard nga fa Let them, let them say outside of the country, in, in Congo, in the 60s, nga jur fa ñeneenti do nga ñib do waat Gambia fii nga dugga university Dakar university Dakar university nga ñëwaat Gambia nga liggéey nga dem France jóge France nga ñëwaat nga ñib si waat Gambia pour liggéey nga sëy nga amaat ñeneenti doom si biir sëy boobu nga liggéeyal UN bi pour ñaata yees nga am Office International Exposure nit toog fële mu sa own life da confuse waaw ma ne bon kii wax na loo xam ne xamu mm-hmm. parce que foog naa ne ah, nit ku nekk su la neexee nga ne bugguma mm-hmm. wala bugga na mm-hmm. loolu is your prerogative but nit ki boo dëggal fu mu dëkkut loo bañ bañ tubaab bi seedeel ko xees jigéen bi not ne lim ma jur waaye jigéen bi xam na lan mooy xosul te defet li bu dee humanité rek alelam yëpp humanité la ko ñu bu doon yaaxa foog man ma toogoon Amérique foofu noonu muy yaaxa nguur bi di ma yónnee kenn du ma bindati kenn du tudda Omar An OIC kenn du ma tudda waaye man bi ma ñibsee fii li ma daf ma teg nii billahi wallahi tallahi a waxtu bi daf ma ne man nag awma lu ma leen jox fii nag liggéey moo fi am te loolu la def liggéey laa def onsan te foog naa ne ah dinañ dem ba si kanam yu bari dina gën a leer xam nga yu bari man mënuma koo leeral waaye yu bari dina gën a leer with time of course dina gën a leer but liggéeyam si humanity eh, it's not like bring my own trumpet but man witness na koo xam ne eh, Munon na jox doomam yi rek xañ ñi si biti waaye kii dafa xañ un doomam jox ñi si biti Non la ko yàlla bindi bu du doon bu bu doon moom ak rek ni ko noonu tey xëy ñu ngi wax leneen So how did you handle how did you handle that situation? How, how did you handle that situation? Kibinda lolo benga gis ko naka nga handle lolo? Ah, ah, Alhamdulillah, alhamdulillah because Lolo Santayana mandama fogne Lolo mo ko arte. Because ay nanyo bari yung non-bus fogne. Oh, finally, am by iyala ne dafata o bente tete yente mungita. Tete ila kung iyala gina susura. Billahi tete ila iyala gina susura. yow musulooy dem anywhere nga tontu am ay nit ñi binda di wax wala ñuy nekk di def seen live video musulooy dem si any of those platforms pour I mean, danga jéem a defend your mom's legacy and her reputation. No, no, only time bi ma mun a fàttali bu eh, am not ku bindoon mu ne mooy about this eh, suma raga at the VP office bi nga mm-hmm. earlier. Mm-hmm. so actually ni ñu ko bindee ne suma at the UN mu Wale Doma, at the UN ah. te man suma rakk bi mu ngi dëkk North Carolina. Hmm. suma yaay ñëw UN suma rakk naaw from Raleigh North Carolina mu dem seeti suma yaay fële ah, New York fi so ñu ne suma yaay moo ko boole si package bi yow wale suma rakk UN meeting koo xam ne sa liggéey si VP office Eh, xam nga am na yoo xam ne toog nga xalaata nit kuy liggéey si vi vi office hmm. nguur moo koo fay waaw dina am fu mu feeñ nguur mu koo fay hmm. waaye kii mu ngi dëkkat North Carolina te yow ne suma raka bi suma raka yëpp fa daata North Carolina lañ dëkkoon hmm. yow xam nga si dara you know before nguur suma raka yëpp North Carolina lañ dëkka ah nguur kenn rek suñ mag mu ngi dëkkoon Angleterre Mhm. soo ñu nee ñu boole si délégué zone bi di ko fay pa DM xam nga ma ma gis ne lii yëpp ay wax yuy bugg a ñu tontu la so ki binda soo demoon naa foofu ma ne ko you know with all due respect ci liggéeyu si BP office North Carolina la jógee mu fly to New York pour dem seeti yaayam because yaayam mu ngi ñëw because So ñëwee officiel mission New York du mun a tee fly ne mooy dem North Carolina pour seeti li seeti doom So gis it pour doomam dem fekk ko si hôtel bi nekk mm-hmm. man su maayee ñëw na ñëw na Washington DC mm-hmm. as VP mm-hmm. man dama drive eh, Raleigh North Carolina I went to the hotel somewhere around uh, I think it was close to Bethesda, Father Plaza, Rockville, Rockville, Rockville, to be precise somewhere Rockville. Man, I drove to Rockville, Puerto disco because it's easier for me to do that with my kids mm-hmm. than mo mu place ou the mu marcher. Mm-hmm. Ma dem spend the week with them, money be what. So mm-hmm. I yep ñu ko binda, I mean nguur nguur ñoo fay nit ñu ko binda. Te tey mun naa la wax ne doo dem fenn You ne ñu ngi fay Omar and one million. you mm-hmm. Gars yi because nguur a doo dem fenn gis ne indi indi si doomam yi mën a tuddal ne. Mm. ñu ngi koo fay doo ko gis fenn. Mm. waaw waaye sista si nag naka la ko gars yi nekk di jëlee Omar knowing ne jigéen ñi of course yow góor sa temperament bi and everything else it might be easier for you to handle uh, jigéen ñi defante rek lañ mun de sista si duñ dee fippu ñoom ne enough is enough ñu génn def seen live video sax. o ñoom seen ah. no that that I know that I know but xam naa ne tam you know if. Eh, anybody looking looking in netam, honestly, with all link them to we handle it with grace. Because like I said, Mantam equally. Within Bela Fanasa, invest now for this enterprise called change. Mm -hmm. And democracy is yet too much. ninko buge. Mm-hmm. It's not the, the full-fledged democracy being buga. Mm-hmm. It continues to be work in progress for mm -hmm. sure. Mm-hmm. Understand? Mm-hmm. But for, for us, to have this mm. healthy exchange mm. is good. Mm. But let it let it be premised on on facts. Mm. Why sister silawa so sister sister sister sa sister si their tonto musu nyogina tonto nyom. No no not I remember. Mun ma remember le any sinyom Kenaki Kenaki is not on social media. Mm -hmm. So hama fan ban platform la wara use support tonto. Oh okay. Suma yenen sibling, they're not that active comme man li ma activé social media because man it's more like every Friday ma dem rek ma nuyu nit ñi ne asalaamaaleykum jumaa mubarak mm. te loolu la ma ko def rek because hey su ma su ma la gisoon si mbedd bi noonu laa laa nuyoo that's mm-hmm. it mm-hmm. Mm-hmm. ok finally na ko wateef bi jegeeñ na ndong li Omar sa final words xam naa ne dañ mun a waxtaanee bari na but sa final words to our listeners to the Gambians out there is there any particular message boo xam ne maybe bëggoon nga koo jàllale and of course this is a platform for you to do so can you is there any final message or anything loo xam ne bëgg nga koo jàllale yow sa jëmmi boppa that you want people to know Well, you know, I mean, thank you so much, Pausman, for giving me the opportunity, of course and uh, you know your able staff here. I'm really impressed with what you are doing, mm-hmm. and I think this is the way to go because considering Finjoge, you know, man fee, honestly dapat fair good. The fact that you have over 40 eh, interns, man, eh, they're coming from UDG, your and the jungle skills. That's what they need. Because man, Limalawa, as far as my functions at the OIC, is looking at applications. They're going through the applications. Mm-hmm dama gis a gap boo xam ne xale yi di jógee university they need that mentorship you know that's a gap boo xam ne it needs to be filled mm-hmm. xale yi bu jógee UDG mm-hmm. dem out there ci rough job market mm-hmm. uh, eh, I don't think it's tenable foog naa yow li nga def like a skill center because man li ma gis fii it's a skill center because jànga bi uh, mit naa Yusufa boo xam ne is from UDG uh-huh. mit naa Aida Aida Aida UTG you know an intern koo xam ne mhm. she is willing to do it all be it photography mhm. photojournalism mhm. editing loolu yëpp yaa ngi ko koo jàngal si studio bi bii man ku ma xam di nga xam ne man du ma fenal kenn man li ma gis loolu la report on you know so yow you are feeling the void because when we come from a dictatorship yow understand nga the institutions yëpp dañ yaaw every day man maa ngi dugg si institutions yi di gis te bu rek laay wax. Mm-hmm. li gis institution si. Mm-hmm. versus suma boot. Mm-hmm. so moo tax I have to say kudos to you and keep on doing what you're doing because these are things we need pour fill gap bi nekk si institution si. there is a failing there is a gap and this is part of the capacity building. understand because léegi-léegi wul ma toog fële ñu def an arts newspaper bi about a job opening and people uh, what they do, oh, job applicants, potential job applicants, what they do, they fill this, they, they fill their applications with a pen, writing with a pen. What new new? Uh, I have to cancel them. Naman purkuanan len, mailen. Budon the damala budon joh lige legere like I was eliminating. you Yo damala eliminate sisasi because do do gel uh, an application nga ko pen. Why I'm feel feeling xam ne su ma deful to mentor them then am I am failing myself understand nga mm-hmm. so the material jël that added burden I sit do one on one with them counsel them Then look see job market big ñu nekk let's say sa nekkaatuloo you go in the Americas mm-hmm. even the way you dress mm-hmm. they look at you go to see job room bi rek interview room bi rek uh, disqualified because of the way you because personality matters foo gisaatuñ koo xam ne mm. maa ngi try di ko dugal si mm. xeli xale yi mm. di leen wax ne job market bi di at lii at lii soxla Mr. Ann dogu dogu dogu dogu ma la de mm-hmm. I am very I am very glad that you are saying this and I hope ne ñoom Aida ñi nga wax ak ñoom Yusufa ak Fatamba yëpp ñu ngi fa these are the things that I teach them on a daily basis interviews yi boppam we do the interviews there I had people ñoo xam ne interview naa leen for this internship program in the past they came in their sol slippers seen dress code know yu bari and we are not only teaching them the skill of ne ok da nga bugg a ñëw jàng camera work or video editing or nataalu or nekk I mean journalist but actually these skills you are talking about ma leen su ngeen demee si force bi they don't have time to teach you about these things and like you said you just walk into the door and they disqualify you so I'm hoping ne Nyom have heard somebody hearing what you are saying because you are speaking the same language that um, I have been telling them all along. So thank you for recognizing Lolo. Mm -hmm. I mean, and you know, I have to say, you know, Fasamba, uh, Suma Jarbala, Manma, mm-hmm. Manman Yayam, Nyolan, uh-huh. and his disease, of course, ko Yala Yirim. Uh-huh. He's doing a phenomenal job. I mean, lele Magis Kofunega, mm-hmm. OIC, Win Ote, Damakufadekis, uh-huh, si setting you buried Damakufadekis, and always Muikaribo Bam in a professional and I think that is uh, very, very impressive of her. Mm-hmm. And Limogonya continue because the job market is a rough terrain. Mm-hmm. You either have it or be kicked out because you know buka job sini. Mm-hmm. The impression matters. Mm-hmm. So this this part of what I do at the OIC. Mm-hmm. You know, I mentor some of these kids coming in with the opening and opening. Mm-hmm. They, these are things, family. You either get it or you lose out in an, an opportunity. Mm. I mean, you go there, shut the doors on you. You don't have another amulo job. Mm-hmm. These are the, some of the reasons you have maybe mm-hmm. uh, figure them on the mm-hmm. job. Mm-hmm. among the patients to mm-hmm. go through you A, B, C, and D. Mm-hmm. But in pertinent to need the them, I mean, we are frustrated in terms of governance, like Lingbugagis, Mm -hmm. But I'm, um, I'm highly encouraged mm -hmm. because if you look at what happened last week, mm-hmm. it's encouraging mm-hmm. because you know, uh, Democrat, uh, you know, is progressive. Mm-hmm. It's not a destination. Understand? It, no, for other eventually. You know, I mean, why I'm finished, um, I'm good people like you, or you next media, be they're bringing about pertinent issues You xam ne is important to the populace. Mm-hmm. You have ne the the whole positions of responsibility. you bring them to account. Mm-hmm. what have you done lately? Mm-hmm. these are you know update people or update the Gambians as far as the office bente. hold them to account. by doing that then you deny the gains you were against gis ci democracy but it continues to be work in progress. There are a lot of challenges, but Lihapunsi House is encouraging, and hopefully, Yenan institutions would come up. But especially Yen media, you are here for gaining. You are here institutions in UK or the heads of institutions, they're not doing what they're supposed to do. I mean, it is your responsibility ethically to bring it up to the fore. Mm-hmm. Let the citizens know that, mm-hmm. hey, institution A, B, C, E, uh, they're not governing up the dictates of mm-hmm. loi eh, yi gars yi sarta yi gars so yéen soo leen indee loolu noonu la di but there is need for civic education of course understand nga so liggéey bu bëri liggéey bu bëree bëree bëree bëree moo nekk fii but with having said that too uh, loolu mën naa indi opportunities yu bëri su dee xam nga bàyyi nga xel what is going around because as an entrepreneur what you do is mhm. you have to recognize opportunity mhm. you know so the opportunity mhm. recognize it and seize the moment ñu la jàppale xelal la léegi nga dem waaye léegi-léegi man li ma lay gis tam we feel too good to do certain things man maa ngi ni I've been away I've done I've done all the job, all, all jobs to sustain my family. Mm-hmm. But at the end of the day, can you do masaga mm-hmm. or stuff like that? Mm-hmm. Because lima don def, lige lima do def, suma nyahala. Level ken, saju ma mm-hmm. ken. Mm-hmm. I feel good about it. Suma tere dama den mm-hmm. ne saju level ma. I feel I feel good about myself. If I can build on that, hopefully, can munna jange tam suma life because our journeys differ. Mm-hmm nekk joonee ak keneen dafa ubbi mm-hmm. am na ñoo xam ne they go to the institutional you know living uh, structure mm-hmm. The A, the A, you know you climb up the ladder i mm-hmm. am na ñoo xam ne seen jaar-jaar feneen but all I'm saying mooy life is about you find a way to combine all these traits to make you a better person because I cannot uh, you know uh, live in to stress neck no matter what you get, so amut ita di amulodara. Tay, dinadong rus tay nyo ne, han, saan ka na institution ni nanggap, yahanafan nanggap, mhm. you know, put na institution eh, into disrepute and stuff like that. But Santa Yala, Yala, mo mo yala di I am really grateful. Mm -hmm. jërëjëf Mr Anne appreciate nañ li nga ñëw pour am grant ñu interview bi pour waxtaan ak man euh, ci face à nga xam ne euh, li lëmbe réew mi rek laay indi li nëbbu ma feeñal ko li euh, nëbbu ñu leeral ko su ko defee ñu waxtaan ak yow rek nga wax ñu sa jaar-jaar ak li nga xam ne moom nga jot a xam ci liy xew rawatina ci bi nga xamee ne sa yaay mu ngi nekkoon vice président ci réew mi coow li ne kur nag ñu yàkka ko lu nekk wax ko lu nekk and it is very professional of your family ne na ngeen mature because sometimes we see some people um, of course depuis back in the days ba jamono ji loo xam ne am um, seen family member suñ nekkee si level boobu noonu am um, uh, loo wax ñu génn tontu saagante ndey bi takar naa see ne kur ante loolu yóbbuwut dëkk bi kanam there is no doubt in anybody's mind ne saagante ndey is not right democracy liñ ko wax wax tamit we are supposed to respect each other we are supposed to be able to argue our points nga d'accord ak man wala nga ñàkk a d'accord ak man ma gisee nii nga gisee ne lee nga jàppa fi nga jàppa ma jàppa su ma jàppa su dee mënuma laa convince wala mënuloo convince we can agree to disagree but not to cause mayhem to each other, not to bring each other down, not to fabricate and castigate each other, not to lie against each other. Lo bañ bañ tuba bi sédel ko xéssayam lolu am solo la and I say it all the time. Ah, ñi nekk ci public office tamit nañ xam ne ñoo boot bukki foog xaj bow leen ah, ndax buñ bañ ku leen ah, jiiñ dëmma waaye bu ñu leen fekk ñuy soccoo eeli liir wala ñuy lekk ci gaale xaj lu am solo la am lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel kon ñu ngi bëggee di leen gërëm di leen santa face à ngeen doon déglu fii ci Gambian Talents TV di ko seetaan ah, ma dalaloon nag kii di Omar Ann di admin ah, officer fële ci OIC ah, nekk di doom ci former vice président yi Gambia Fatoumata Jallow Tambajang dégg ngeen lim wax fii ci yaayam ak lim jot a xam ci yaayam ak lim ko seedeel lenn nag dinaa ko tëjee mooy lii Gambia saa su nekk ma wax ko ne fee commencé wuñ di cëral suñ kilifa yi muy kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan ak mag ñi ak boroom xam-xam yi suñ dëkk bi dinañ saxaar rek waaye duñ tàkk duñ musa dem su ma defee lu tax Gambia du dem show ay say this all the time for heaven's sake yaayam ak keneen ku fa munti jaar ak nu mu munti demee there is one thing and one thing and one thing they have, which is a statesman or a stateswoman, respecting them for occupying the highest office in the country. We are all seeing former presidents of America right now. Bu good ni rek bu am ah, ki rere George Bush senior muy papi George Bush junior am George W Bush papam bim rere ah, bu yagut ni rek 2 weeks ago. Bi um funeral am five living presidents in America yëpp from George Bush to Jimmy Carter ñoom ñi ñi dunda to Obama to Bill Clinton ak George Bush doomam bi ak of course the current president Donald Trump ñëpp a fa George Bush junior amul luñ ko yàkkut president but right now he is given that respect as the former president of the country it doesn't matter what decisions he took while being president. It doesn't matter what decision um, um, Fatmata Tambajang, um, uh, um, uh, Madam Fatmata Tambajang took while being vice president or whatever. But the fact that she had occupied that office, we need to respect her. Suñ kilifa yi nak respect. Even former president Yaya Jammeh, he's accused of a lot of um, humanitarian crimes. He's accused of a lot of um, economic crimes. He had occupied that highest office in the country and for that reason we need to give him that respect regardless of what This is just a fact it doesn't matter who it is Why, unless and until you are at level boobu am that level of awareness civic education dina métti pour suñ dëkk bi dem kanam kon lii mooy liñ leen amaloon di leen ñaax pour ngeen jàppale ñu dégg ngeen li Omar Ann seede jamono ji as we speak he is right there in our office like I told you we registered this institution as a non-profit public broadcasting institution like a skill center a one-stop shop where we are going to train young people we are going to train a lot of them University of the Gambia like he said I have the opportunity to interview almost Nijar Fofuyev right now as we speak. 100 applications, la, I'm sitting there in the office. We only took 10 out of those. We are waiting to interview another 20 30 rek dañoo jël this time around the other 70 what is their fate these are um, students going to the university or other tertiary institutions ñoo xam ne amuñ the practical knowledge in some of these things they are learning wala ñoo xam they are school dropouts wala ñoo xam They dañ demoon si back way wala tukki woon bitim réew ñu deport leen oo delloo si leen amuñ si luñ jàppa ñii lañ nekk di jàppale ñun Um, we took it upon ourselves when we started this program. Um, New Watan as a team, we decided, you know what? Let us allow them to come and make mistakes at our institution nañ jox xale this opportunity pour ñu ñëw make mistake ñun ñu gàgganti leen wan leen yoon comme some of these things that Omar Ann said rather than leaving it to those people nga ok da nga am institution you are only looking for the professional ñun ñu ñëw train la benga nga benga ba nga xam wan la li nga war xam yëpp ñoom ñu ñëw jël la from us that is what we want to do we are very aware of it we want to give them the opportunity to make mistakes to learn and make mistakes moo tax ñaax su ngeen gisee xale yi di ñu présental wala di def dara xam leen ne ay intrant lañ xam leen ne ñu xamul dara si liggéey bi lañ we are bringing them as virgins maybe jeexaluñ school sax they are dropouts but we trust them we encourage them jox leen microphone ne la am tiyel nga doxal nga wax wala jox la caméra ne la tiyel nga doxal ku musta def loolu soo ko joxee caméra ne ko doxalal su caméra bi séegee yow mii seetaan war nga amun understand ne ki kat dafa jànga waaye da ngeen dee crucify guy a lot we have people crucifying our interns and that can be discouraging I'm glad Omar answered said this day in leen wax lii we have a lot of young people who are learning and if you see them doing unprofessional stuff xam leen ne dañoo jàng ñun identify nañ loolu notice nañ ko suñuy génn off the scene rek dinañ leen wax ne ah bi nga report it tey wala bi nga cover coverage tey wala bi nga bindee story nangam def nga fa lii ak lii ak is not right nga adjust ko for next time and you can see them growing and getting better. Like he mentioned Yusufa's name. Yusufa came as an intern. Right now, he has his own show. Mustatia microphone pour work anywhere. Moy def diben koto elek su ngeen he will be having two interviews. Ben uh, Ibrahim Adiba, who is the current protocol at the Gambian office in in in in, in Saudi Arabia. Um, mu ngi Ibrahim Adiba la mo am. Benen bi mu ngi am kenn ci musician ci um am diben koto show bi ak Semester Avenue. Aida Kebe of course me mentioned he came as an intern and right now she's actually a full-time employee at Gambian Talents which we are very proud of so kon ñu ngi jappalé té yeen dërëm yi ngeen ñoo donné seen 5 dollars yek 5 cents yek I mean trans yooyu noonu ak tulaali bari it goes towards dépasse institution bi courant bi ñoo jënd internet bi AC bi gis ngeen Omar An mu ngi non seede yàlla mu ngi fompa ñax gi ah place ba ngi tanga be mu ngi fompa ñax gi we need ACs we need other gadgets yo xamné dina tax kon ngeen gis Omar's image Clear, to be clear there are uh, certain gadgets that we still need Same contribution moy tax ñu mëna def lool yépp kon ma ngi Omar An, di bëggee team bi fofu nonu ci njiti Fat Samba Omar bi nga ñow wax na ko mëna ma Omar An suma oncle la man ne ma koo tooñ na ko rek waye nga ko ko fii nii ne yaag oncle la ma <laughs> don àndal so faratu mbokka xaw ma daf la ko di xawma na daf la ko di xawma na daf la ko di né la so démé waxal suma oncle ga uh, si, si, si, si Sally pumawag sa idea. Aha, lola lawa. But, um, you know, I mean, kung na magmahalirik, uh -huh. you know, ang gawa neo. Aha. So, please, kumawa, bitang, uh-huh. you know, walang pufil na toy nala, o kumamo mm. sa toy, mm-hmm. nang mabaral aha, I mean, lujub si wajinak, siyala lajugi. Aha. Uh-huh. lu si dégg man mii la jógee ngeen ah. baal ma ah. wax néew jërëjëf kon yéen ñi ñuy seetaan next to seen comment section bi you will see a green tab there that says um, uh, uh, become a supporter mu ngi am love sign if you click on that tab you will be able to subscribe to our channel you should be able to help support us and support what we do we appreciate your support dina tax institution bi gën dem kanam Omar An Leral na fi lu bari share this video du la wàññi waaye dina ñu yokk ñun te dina jangal tamit ndax jangal askan bi rek moo ñu def lii So, fekkee ne you are not able to see uh, that donation tab at the end of the day tamit maa ngi share that link where you can subscribe right now yéen ñi set, and you will be able to subscribe um, of course by just paying um, five dollars every month and you can even discontinue this subscription anytime So, la neexee su ngeen ñu jàppalee loolu dina am solo bu baax a baax dina tax pour ñu gën a mun a dëgër pour defal leen li nga xam ne moom if you want to donate one time tamit the PayPal link has already been shared under the video mun ngeen koo gis moom tamit you can click click on it and donate one time, any amount you want. Well, come to the worst, soo amee mbokk Gambia nga yónnee allowance foofu wala yow sa bopp nga dëkk Gambia go to our studio is right there at the Red Cross building inshallah you will be able to donate to bu yàggut nii rek ki ñoo wax Susana Dembala déglu soo lu tax Gambia du dem show bi mu donate ñu 2000 dollars jërëjëf Susana we got the money not long ago am loolu dina help pour dépasse institution bi ak yi nga xam ne moo ñu tax a jóg jërëjëf Omar Ann jërëjëf déglukat yi jërëjëf staff yi Gambian Talent foofu noonu ñi ñoo seetaan YouTube thank you very much ñi ñoo seetaan Facebook ak ñi ñoo déglu si WhatsApp futhi wayne kacinyanti konyika haduna penko harpo goppo walla ngalandu until i come your way with fasa fast next week inshallah mangi wara am former minister of um, information da jao demba ali jao moom laay am as my guest next week monday at 5 pm kon ñu dee xool leen dig daje ba next monday inshallah jërë ngeen jëf um, till come your next time jërë ngeen jëf ma ndi nyulle naataw ka jaɗo ga ñandi ñulle naataw ka jolol fanan fintindi facebook o to youtube facebook o to goy ko youtube gambia talent muna promotion lem gambia talent muna promotion gonde jaworoɗe mari ɓunka wate wate muna ngejuɓele wate wate muna ngela moile wate wate buna ngela kuomila gambia talent woy gambia talent woye ngoye dulle nata woy kantoli kidimandi kantoli sewondi kantoli nganyandi gambia talent buna gambia talent buna gam talent woy gam talent woy ay wali pa usman diouf inimba omunyonganya obraisa nunyonganya yosef Rai, ponme los Gambian Talent TV, always filler. Entertainment, comedy, news, anything. Filler. Parenthesis. Nyebe. Gambian Talent TV. Wako wati, jannam. Alkanal bulo bondije, ala bulkumba akan touch. liyajiɓe musique comédie fen fere entertainment na kamɓelan ɗo e basamalane talent talent ¿Mm? nega gesen gesen yan gonde mamoy ngoto e julolo fennega gesen gesen yan gonte mamoy fonde ma boye faloli min ɗi ɗum ni san yowtilole boyda ɗin ɗin gambia talen promotional al fulanti jang itolle be jambe nyaato gambia gambia talent promotion mun tolle tati alingi makoy e ka gambia la londole pousse nyaato niyamo gambia talent promotion wala mandi ka kamola ka